jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte dellusiwaat ci euh, télé bi tey fas yéene leen dégtal seen émission 90 minutes ensemble di am àllarba bu jot ci waxtu wi xam ngeen nag fu mu toll nii lu ay di jàmbat moom moo di feebar bu ñëpp di wax moom moo di coronavirus ñenn ñi di ko woowee Covid 19. di feebar boo xam ne lëmbe na àdduna bi bés bu nekk nag ni ngeen di ko seetaanee ci suñu xibaar yi rawatina sànq rek ci xibaaru juróom-ñeenti waxtu yi wala boog 19 heures juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu yi ci ngoon benn bi Moussa seen def ko beneen bi Fatou Niang def ko dégg ngeen sax kaa euh, yi nga xam ne bi maanaam am na ndax euh, bu ñu xoolee ba ci biir nee nañu te juróomi nouveau kaa jot na am ci maanaam euh, ci maanaam daal mu ñu koy wax vingt 27 tests. 27 tests maanaam ñaar fukk ak juróom-ñaari test yoo xam ne def nañ ko ci biir loolu juróom lañ jàpp ne ba ñu leen delloosee jàpp ne ne ko ñoom dañaa positif bi maanaam amee nañu amee nañu jàngoro ji nee nañu euh, ñetti ñi cas importé la yeneen ñaari nag ay contact ba moo ko waral donc bu ñu xoolee fu mu toll ni total bi lu tubaab bi naan xayma bi yëpp euh, am na fanweeri nit ak ñeent ñoo xam ne amee nañu feebar bi waaye lu xaw a tiital tuuti askan wi moom moo di OMS sànq ci ngoon jot naa génne benn bataaxal mu ne Afrique doit se préparer au piir maanaam Afrique war naa préparer wu parce que mbir mi boo moytul dana dana métti lool. lu tax OMS yëkkati li nu mel euh, xamuñu ko lan la ci jublu xamuñu ko waaye bi maanaam daal mu ngi bëgg a wax lu tubaab bi naan à travers quand même ses propos euh, que ñu gën a yokk li nga xam ne moo di vigilance ndax feebar bi du caaxaan. feebar bi nag doon na loo xam ne dafa lëmbe àdduna bi tey euh, ci ay chiffres nee nañ lu ëpp sax mille personnes ñàkk nañ seen seen seen bakkan 7007 sax lañ doon wax ci dernier chiffre léegi yokkaat na encore euh, fële ca euh, Italie démb rek lu toll ci 475 personnes ñàkk nañ seen bakkan ci benn fan chiffres yi bu koy wax mën nañ fii la ñuy fanaan. di crise boo xam ne crise sanitaire boo xam ne sax bu yemoon ci sani santé la ñu ne waaw mais dafa dem ba laaxaale li nga xamante ne moo di économie mu di koom-koomu adduna bi tey nag fu mu toll nii adduna bi dafa mel ni yëpp a taxaw ba moo tax ñu woo ay boroom xam-xam fas yéene waxtaan ak ñoom ndax dañ au-delà même des personnes le Covid-19 a atteint l'économie mondiale ba tax sax ñenn ñi fu mu toll di tirer la sonnette d'alarme ñu bëgg a xam est-ce que lii di mondialisation euh, Covid-19 daf ko fee yemale ba faw wala déet. ñenn ñi maanaam crise bi nakal la ci àdduna bi war a mën a taxawee rawatina dëkk yi nga xamante ne amuñu koom-koom wala seen koom-koom demewul ni ni mel li mel ni quand même Sénégal yan solution la ñu war a mën a indi pour permettre askan bi euh, mun a traverser euh, jafe-jafe yi nga xamante ne wala crise sanitaire bi nga xam ne dal na quand àdduna bi ndax ay dëkk yu bëri yu mel ni France jël nañu ay mesures daan ci ñëwaat ci kanam tuuti ak suñuy gan saa su nekk ci waxtu wi may ànd ak. sama consultant di sama naataango Babacar Dione Babacar nuyu naa la di la gërëm di la sant bu baax. maa ngi lay fay Cheikh di am mbégte teewaat également mercredi ci émission bi 90 minutes ensemble. également di kontaan si thème bi c'est vrai naqar la par rapport à la situation mais nag thème bi jar na ko mhm. parce que je crois que fii mënuñu def dara loolu sensibiliser sénégalais yi ci li nga xam ne moo xew au delà de l' aspect sanitaire gis nga ko tey yaa ngi indi yaa ngi indi aspect économique mhm. donc ça veut que vraiment coono la si Afrique si pays yu mhm. parce que gis nga li nga xam ne moo xew euh, fële Europe ak lépp donc c' est important ñu choisir thème bi di nuyu téléspectateurs yi di ne moom moo di sujet bi dinaa ñëw ci yow pour quand même euh, nga wax ñu tuuti quand même ci feebar ndax am na solo ndax dimanche bi ñu weesu. Euh, def nga ci quand même débat bu am solo invité le ministre de la santé ak ñëpp ñu bokk ci débat département am euh, wax fi wax ju am solo jëm ci quand même Covid 19 ñi leen di waxaale ne am na benn émission bu ñëwee Covid 19 daañu ko tàmbali suba bu neexee yàlla à 17h incha allah di am bés bu jot ci de 19h à 19h de 17h à 19h bal la ñu wax c'est un peu quand Euh, l'émotion ba tey ci suñu gan yi ñu fas yéene dalal kenn ku ñu wax Bruno D'erneville kenn dootu ko présenté ñen ñi gën ko xam ci ancien candidat à la présidentielle ñenn ñi xam ko ci om d'affaires waaye nag euh, bu leen neexee ba tey moom moo di président euh, parti pour l'action citoyenne D'erneville Bruno nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh Diaby di nuyu suñu mbokk yi nekk ci plateau bi yëpp le doyen Babacar Dione. nekk sama mbokk fu dëgg la. di nuyu itam Moxtala nga xam ne ñoo bokk euh, suñu kuréel bi nga xam ne mooy CNES patronat sénégalais. wax nga dëgg di nuyu sénégalais yëpp nag. jërëjëf jërëjëf Bruno ñu lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax di gërëm di sant tamit bu baax Mor Talla Kane euh, moom ci secteur privé la bokk mu di sama mag bu baax moom tamit saa yu ñu ko woowee rek il est prompt vraiment à à répondre à nos invitations te bii duna guleet quand même moom nag mooy directeur exécutif euh, CNES mu di confédération nationale des employeurs du Sénégal baax na ñoom tamit ñu teew fi ndax secteur privé bi euh, fu mu toll nii dañ leen mu ngi doxee fu mu toll nii benn tànk coronavirus bu ñëwee bu mu ñëwee léegi nag xamatuñ ndegam ñu ngi dox wala ñu ngi raam lu ci mënti que ñoom ce employeurs yi ñoom ñoom ñoom ñooy maanaam ñi nga xamante ne euh, ñun ñii di liggéey bokk mën nañ ne ci ñoom la ñu bokk bokk ndax ñoom ñooñu ñoom ñooñu euh, nu ñu koy waxatee ci wolof bu wóor ba Babacar ñoom ñooñu ñoom ñooñu fat bokk parce que ce sont les employés ci kuréel googu la ñu bokk Mortala nuyu naa la euh, Cheikh maa ngi lay fay di la encore remercier parce que yàgg naa ci sa plateau di ci bëgg parce que ce thème c'est toujours important lu am maanaa la et puis ni ngay doxalee neex na moo tax ma sawar ñëw moo vraiment sonn ci di fi ñëw di nuyu sama xaye John Derneville moom effectivement am na benn casquette boo ko présenté defe naa ñaari casquette la mais damay commencer par Massaw. dëgg la euh, suñu mbokk yi ñi mu jigee pour le moment ñi mu laal ak ñi nga xam ne laal jigéen na ñoo xam ne dañ jigee ñi ñu ñu laal ak mbokk yi nga xam ne ñuy nekk bitim réew euh, di leen Massaw di leen remercier di la remercier ngir ñoom parce que plateau bu toll nii nga teg ko pour wax ci loo xam ne dafa importance dafa mu doon un débat mondial defe naa loolu 2STV defati na maninam encore maa ngi lay remercier di la sant di ñaan yàlla liñ fiy waxtaan euh, mu doon waxtaanu jàmm waxtaan bu sedd mu doon loo xam ne vraiment dina am njëriñ ci réew mi parce que fi ñu jublu defe naa yéene yëpp ñoo bokk benn jublu donc une fois maa ngi lay remercier Euh, di remercier des justifiés El Hadj Ndiaye ak waa kër gi. jërëjëf jërëjëf Mor Talla ñu lay gërëm di la sant bu baax ba tey ci waxtaan bi kii di docteur Thierno Thioune économiste moom tamit war naa teew dafa yeggali juste maquillage am euh, le temps que mu yegg ci euh, moom tamit dina teew bokk ci waxtaan bi ndax xam ngeen économie faaw ñu un économiste moom nag enseignant chercheur la fële ci université wala maître de conférence sax fële ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru kon Babacar ni ma ko waxee ci càppandaw gi dañuy seetaan ko seetaanee dellusiwaat ci plateau bi ndax ñi ñuy gën a xam ana lan la ñu war a fas yéene waxtaanee tey ci ngoon. coronavirus fépp foo dem ci àddina wërngal këpp chef d'état yi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ba xeex bile jàngoro mu jur nag njaaxare ci xelu askan wi waaye tiitàng gi nga xam ne kenn ku ne am na ko ndax ragal bile feebar dugg la beneen jafe-jafe itam ma ngay xaar askanu àddina wërngal képp te mu ñeel wàllu koom ndax lii di coronavirus donte dina salfaañi wérgu yaramu doomu aadama yi waaye li mu fiy bàyyi ci ay séquelles dina jural koom-koomu àddina bi jafe-jafe yu bari ndax entreprise yi eh, ñu ngay waaja a ñi nga xam ne nag ñoo fay liggéeyee soo moyul ñu ñàkk seen liggéey naka noonu ñi nga xam ne dañoo sàkku ci ñoom ngir ñu toog seen kër te ñu doon ñoo xamante ne ñi seen liggéey daan indi koom-koom ci àddina bi loolee yépp doon loo xamante ne lii dina am njeexital bu am solo ci dundinu askan wi rawatina fii ci Sénégal nga xam ne lu ëpp ci la ñuy dundee dañu koy jéggaani rawatina nag secteur hôtelier boo xamante ne bi moom mooy ñaareeli secteur économique bi moom it coronavirus bi menacé na ko ba sax ñi nga xam ne ñoom moom hôtel yi ñu ngay waaj a dàq seeni employé wala sax tëj li nga xam ne moom mooy seeni hôtel coronavirus bi ñëw ak jafe-jafe ci wàllu wérgu yaram waaye itam fas yéene fi bay nag jafe-jafe yu bëri ci wàllu koom jërëjëf Kajoor Kajoor Cissé mu ñu euh, fixé li nga xamante ne wala ba campel boog euh, nu ñu koy waxatee ci débat bi waxtaan bi nga xam ne fas yéene nañ ko amal euh, tey ci guddi gi fii ci seen émission 90 minutes ensemble thème bi nag maanaam ñu koy woowee Covid 19 deux points l' économie mondiale testée positive alors Babacar dama ne woon sànq ci ci njëlbeen ci yow lay tàmbalee. ndax lu tax fan yi weesu rawatina dimanche bi jot nga amal waxtaan bu am solo. te li ma gën a jaaxal xaw maa tiital tuuti balaa maa ñëw ci situation mondial bi. Euh, OMS génn na benn bataaxal sànq mu ne l' Afrique pour reprendre textuellement les propos quand même doit euh, l' Afrique euh, mu ne en fait l' OMS appelle l' Afrique à se réveiller et xibaar yi nga jot. lan nga mën a wax ci loolu. oui Cheikh je crois que loolu xam nga au de la de l' aspect sanitaire. Hmm. parce que ni muy duggee nii xam nga bu fekkee. dafa am lu xew euh, ay Europe nga mel ni ku mel ni France nga xam ne jege nañu ñu ciy bàyyi xel nga xam ni feebar bi daanaka mi ngi koy commencé daan yegg benn moment boo xam ne jël nañ ay décision yoo xam ni seen économie daanaka am moitié yi lay fonctionner yow nga gis ni lu mel ni Afrique man ni ma ni ma ko jàngatee fu mel ni Sénégal nga xam ni euh, village planétaire bi wax nga ko leer na. Mm. Afrique euh, monde bi lépp daje feebar bi wane na ko jóge Chine jaar Europe daal ci Afrique. am impact boo xam ne peut-être du point de vue sanitaire ak nombre yi mu jàpp ma Sénégal ñi ngi ci ay cinq 35 36 nit ñi mën nañu xalaat ni jéggiwul dayo waaye conséquence économique bi comme ni nga ko tuddee l'économie testée positive mm-hmm. maanaam gis nañu ni euh, Covid 19 bi am na impact ci économie surtout économie Afrique parce que li waral loolu Cheikh mooy que ni monde bi xam nga lépp booloo suñu pays yu néew doole xam ni li ñuy li ñuy am yépp daanaka extérieur la jóge li ñuy importer bari na lool. amuñu production boo xam ni wala amuñu koom-koom boo xam ni mën nañoo téye bu ñu joxe exemple Afrique ñu ne la Afrique rek euh, am na 3 virgule 8 euh, pour cent 3 virgule 2 pour cent la ñu xayma woon croissance am. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, si si 2020. léegi ak crise bi am rek si quelque semaine ñu ne croissance 2020 dina wàcc ba 1 virgule 8 pour cent mais loolu ñaata point la ñu xalaat ni PIB croissance PIB bu Afrique dina wàcce yu yu demee noonu. loolu xayma la bu leer nañ Afrique war a dund loolu nga gis tey rek bu ñu joxee exemple je crois que euh, waa patronat bi yëg nañu ko ñu ñu mel ni Racine si Mamadou Racine. Ah, le le comité de crise bi nga xam ni hôteliers yi hôtel hôtellerie ak le milieu du tourisme woote nañu King fat nee nañ mois de mars rek xayma nañu huit cent millions de francs CFA de perte xam lu mel ni Sénégal. nga mën a ma benn perte bu demee noonu. te nee nañ est-ce que sax fu mu toll nii waruñu gis le chef de l'État ne ko carrément nañ tëj quand même hôtel yi. Euh, oui loolu aussi beneen mbir la encore. loolu beneen mbir la wàcc. il plusieurs milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur. non parce que tëj bi. Hmm. c'est c'est même à la limite. parce que yaa ngi dégg tey ñu ne la France 178 touristes yoo xam ne nekkoon nañ fi France yóbbu yónni nañu ay avion ba jël nañ leen yóbbu xam nga ay chiffres la rek nii ci ku xamul waaye mais l'impact est cent soixante-dix-huit touristes ban impact lañu am si hôtel yi ñu doon nekk ak yooyu léegi jóge nañ fa dem nañu te ñeneen du ñu gaaw a ñëw parce que frontières aussi tëj nañ ko mhm. maanaam avion vol dootul jógeti Europe pays yi nga xam ni pourvoyeur la yu si bëri muy France Espagne ak peut-être même Italie léegi dootuñu mën a indi avion ñëw donc ça veut dire que touriste dootu fi mën a ñëw te moment bi parce que saison touristique boo xoolee décembre janvier février ba moment bi day xaw a day xaw a dem donc léegi conséquence sanitaires yi tax na économie bi moom laal nañu ko te loolu leer na Sénégal yëpp mm-hmm. donc Cheikh bu demee noonu si dëkk yoo xam ni dafa pauvre ba jaaxal ñëpp ñu gis ni Afrique également wax naa la koom bi Euh, je crois que docteur dinañ si gën a wax lu lu am solo. koom-koom bi dafa dépendre lu bëri si ay pays yoo xam ni extérieur lay jóge ñëw. parce que ñun Sénégal xam nga boo xoolee ñu naan la France am nañu stock boo xamee ni mën nañoo continuer euh, pour pénurie peut-être bañ am. Mm-hmm. en plus am nañu ay am na industrie am nañu production. national interne boo xamee ni mën naa tax peut-être au même moment que manque di nga am ñi ngi produire mais ñun nos pays là on ne produit pas assez. on ne produit même pas. ah lu si doy waar mais ñun tout ce que nous boo xoolee ba ci ak 90 pour cent. day donc aujourd'hui looloo taxoon ay donc fu mu toll nii euh, tiit am na raison. looloo tax nga les gens ont des raisons. que déjà mm, industrie yi dañuy tëj maanaam yow euh, tourisme bi c'est pas parce qu'on a rek 30 cas maanaam koom-koom bi li koy doxal ñëwul ça veut dire dañuy fermer. dëgg la donc tourisme bi jox naa la exemple beneen bi mooy Cheikh ñu si bëri sénégal yi dañ ñu ngi à l'extérieur. ah c'est des c'est des émigrés te loolu dañu am koom-koom euh, boo xam ni dañ koy yónnee Sénégal ci seen famille bi ak l'économie sénégalaise. ci doy waar boo xoolee ñoom entreprise yu ñu liggéey entreprise yooyu tëj nañu. entreprise fermé nañu dans les pays là. dans le pays yi nga xam ne ñoom ña nga fa muy France. Mhm. wala Italie peut-être ñu ngi leen di accompagner ñii ci impôt ñii ci leneen. France sax dégg nga maanaam chômage bi sax ñoom am na indemnité boo xam ni peut dañ koy joxe indemniser ñi nga xam ni liggéeyuñu loolu mën nañ ko comprendre mais bu fekkee Cheikh da nekk dëkk bu mel ni Sénégal ah wala Afrique nga xam ne yow sa koom-koom doyul. Hmm. ak coow li ni mu bëree chaque jour ñu def émission ci li nga xam ne des na ñu war koo def matali ko te matul waaye léegi ñu ne la Afrique. Hmm. ñu ne la Afrique ak coronavirus bi soxla na dix milliards de dollars dix virgule six milliards de dollars la soxla. pour gap bi nga xam ni sanitaire dina ko créer ci dëkku Afrique koom-koom yow li nga am matul yaa ngi war a compléter loo xam ne yow matagul ut na léegi ñu ne la nag coronavirus bi indi na la problème boo xam ne maanaam guuf benn pax boo xam ni soxla nga di nga soxla dix milliards xam naa OMS ci chiffre yooyu la basé wu pour nekkoon Afrique nu mu ciy génnee. wax nga dëgg. donc je crois que bu ñu demee ba ci biir solution yi gis nga ku mel ni docteur Abdourahmane Diouf la mu waxoon am na solo. Ah, yii yëpp toujours ñu wan ñu ci dévaluation wan nañu ni Afrique. war nañu xoolaat suñu bopp koom-koom bi je crois que moo euh, <laughs> moo ami kat moo tàll dinañ ci wax mooy que ni koom-koomu Afrique Cheikh il est temps que ñu xoolaat suñu bopp parce que bu fekkee ñun ñu ñëw rek laal ñu gis nga dévaluation bi dañu ne woon c'est une chance pour l'Afrique en tout cas pour le Sénégal pour ñu defar koom-koom bi nga xam ni dévaluation boobu au lieu mu nekk lu ñuy gaañ mais dañ ciy gagné demewuloon noonu léegi lii am na bu ñu ci génnee peut-être foofu mooy Afrique war na xoolaat boppam Babacar foofu nga nekk laa bëgg ñu taxaw tuuti. Mm. Bruno euh, sànq présenté naa la xëy na ci plusieurs facettes waaye tey mun nañ ne da nga fi ñëw en tant que quand même mun nañu homme d'affaires wala quelqu'un quand même dans les affaires. Mm-hmm. Euh, Afrique war na xoolaat boppam wala est-ce que yéen réellement ressentir ngeen impact bi maanaam crise bi tey bu am ci àdduna bi. waaw jëf euh, Cheikh waaw sànq yaa ngi may présenté un peu en tant qu'homme politique surtout waaye ni ko Mortala waxee dama. Euh, bokk itam ci patronat dama am casquette ñaari casquette bi tax euh, sama taxawaay ci wàllu politique xaw a euh, am originalité wax nga ci sortie wu OMS mu nekk wax dëgg conseil bu doy waax bu mu jox Afrique donte njoxtoon nañu ba pare ne lii ñëw dina doon lu métti ci ñun waaye bu dee OMS demee ba di ko wax dafa am lu mu séntu ci li ma jàpp ndax dañu ñoom dañu am ay expert nag ay experts yu mag a mag di saytu bu baax ni jamono di doxee ni ko Babacar waxee sànq euh, ànd naa ci li mu wax yépp ndax euh, tënk na wax ji ci wàllu cadre contexte mondial bi ak suñu contexte bi fii ci Sénégal nga xam ne dañu nekk ci réew mu xam ne dafa néew doole euh, yenn filets sociaux yi nga xam ne mu am nañu ko ci dëkk tubaab yi file social mooy maanaam euh, jumtukaay yi nga xam ne réew mi mun na ko tegal ñi nga xam ne ay néew gi doole lañu pour bu ñu amee ay gàkk-gàkk bu ñu amee ay jafe-jafe ñu mun leen taxaw euh, doole boobu dañu ko xaw a euh, ñàkk tuuti ba tax lépp lu ñu dal rek dañuy faral di jéegaane li nga xam ne day jóge ci institution internationale yi ñu ñu ci jàppale tey foog naa ne jafe-jafe yi dafa lëmbe ba nga xam ne ñu ngi xalaat sax ndax ñi nga xam ne ñooy institution internationale yi dinañu am koppar boobu pour jàppale àdduna si yëpp ndax tey àdduna si yëpp la laal gis ngeen ne Ebola ñëwoon na fi waaye OMS waxul wax ju mel noonu hmm. donte Ebola nekkoon na feebar boo xam ne moo gënoon a métti ci li muy def ci yaramu nit hmm. waaye nii euh, euh, nii feebar bii di lawee muy coronavirus ak euh, ni muy ni muy euh, nekkul sax ni muy faatal lu bari waaye li nga xam ne day wàññi nit ñi ba nga xam ne hôpitaux yi il faut ñu am taxawaay bu doy pour mun a su soutenir nit ñi ñu ma ñu bañ a faatu ndax li leen faat li leen di faat souvent mooy li feebar bi di leen nëx daf leen di nëx du ñu mun a noy ko defee nag il faut ñu am ay matériel pour jàppale leen ci nokki bi loolu nag dafay laaj ay équipement équipement yi nga xam ne ñun dañ ko xaw a ñàkk tuuti lu bari sax ndax gis ngeen ne tey euh, amuñu benn crise amuloon benn crise ci jafe ci ci temps yële passé waaye daawoon nañu dégg ñoo xam ne dañuy ñu feebaree dañuy ñëw hôpital waaye mun nañ dem sax ci urgence waaye urgence du leen mun a jël ndax lal yi doyul ndax jaf ndax daal matériel yi doyul kon nag bu ñu tolloo ci jéyee bu day nii mu doon loo xam ne balaa OMS di ñu ci wax sax ñun dañ coo dañ cee war a euh, taxaw dëgg-dëgg damay faral di wax sax ma ne lii ñu dal nii am na ñuy wax ne ah mbiru yàlla la loolu beneen débat la waaye lii dal nii ci àdduna si dama jàpp ne war nañu war na am léegi nag lu mu ñu jàngal dëgg mooy li Babacar doon wax sànq ndax nag ñun dañu am ay atavisme yoo xam ne il faut ñu taxaw ci euh, xeex bi ñuy wax ne dañ koy xeex coronavirus man bu ma sañoon dañuy wax nañu ko xeexee suñu bopp ñun dañuy dañu war a xeex suñu jikko bopp. ci naka ndax suñu jikko yi. Hmm. ñoo jagul dañu waxante dëgg ndax nit ki bu ñu la joxee ay instruction discipline da nga ci war a topp ma ciy profité aussi di gërëm bu baax suñu kilifa diine yi ndax am na benn journal bu wax Le Point journal français mu ne Sénégal euh, Afrique surtout Sénégal euh, mu ngi xool ni Sénégal di taxawee surtout que yëfu diine dafa jaxasoo yëfu yëfu yëfu koom ak yu politique. waaye tey foog naa ne ñëpp gis nañu taxawaayu euh, kilifa dine yi ñoom ñëpp ànd nañu ci tax ci xeex bi tey dégg nañu ne euh, catholique yi nee nañu mees yi dañ koy dakkal musulman yi itam nee nañu euh, mosquée bi jumaa ji dañ koy dakkalagum nit ñi di tol di ñaan ci seen kër mhm. kon nag loolu wane na na am nañu première réaction xam nañu ne jihad bi ci ñun lay doon lay tàmbali nañu am jikko yu baax yi damay faral di dégg ñu naan il faut ñuy set mais fii weesuma weesu set waxatuñu waxu set ndax gis ngeen ne tey fii par exemple boo xoolee da ngay ne set na waaye dara waxu la ne fii boo ci tegee sa loxo doo ci jël virus bi virus dafa nekk loo xam ne mënoo ko gis kon yëf yi weesu na set kon salte bi ñu bi bi ñu doon faral di di dund non seulement léegi dañ ko war a fexe ba jàll ko waaye dañu war a jéggiwaat loolu toll fi nga xam ne dañu war a am asepsie ni ñuy raxasee suñu loxo. ci anam yoo xam ne du doon parax-parax waaye day doon anam yoo xam ne foog naa président wane na ko day day doon loo xam ne boo ko defee dina rey li nga xam ne mooy microbe bi nga xam ne mënoo ko gis kon bu ma ñëwaatee ci li nga xam ne moom la OMS wax dama leen ne OMS dafa am ay scientifique yu au niveau yoo xam ne ñooy saytu li ne ci àdduna si kon bu ñu waxee loolu am na fu ñu ko teg euh, bu ngeen seetluwee wala bu ngeen bu ngeen bu ngeen xoolee ci information yi ci wàll ci période décembre décembre 2019 am na benn ndaje boo xam ne rencontre stratégique la woon ñu defoon ko fale ci États-Unis ci New York ki ko doon organiser moo doon la fondation Bill et Melinda Gates ñu woyee ko woon event 201 mooy événement mooy lu xew 201 200 boobu 1 boobu la xaw ma lu muy tekki waaye ci event boobu lan lañ ci doon wax li sababam ndaje boobu moo doon waxtaan ci li nga xam ne ñu ngi koy wooyee global pandemic exercise global pandemic exercise xam ngeen ne dañuy wax pandémie mooy li nga xam ne day law ci àdduna si yëpp muy feebar boo xam ne àdduna si yëpp lay jël ñu ne bu ñu tolloo ci ki fi nga xam ne da àdduna si yëpp day am feebar naka la nit ñi war a taxawee kooku décembre bii la xew xam nga décembre yàggul mm-hmm. waaye moo jiitu événement moo jiitu arrivé coronavirus bi bi ñu dajee bari woon na fa ay kilifa ñeen ñi nekk ci ay compagnie aéronautique Lufthansa ak ñu mel noonu ñenn ñi ay banques yu mag banque mondiale sax a nga foon ak ñeneen ak ñeneen ak évidement le groupe euh, Bill et Melinda Gates Foundation kon seen waxtaan boobu am na lu ñu ci tënk. muy lan pour nga daane ma tënkal leen ko tuuti. dañu ne lu mel noonu bu amee il faut ñëpp mun a mànkoo ci àdduna si yëpp banques yi dox seen taxawaay et cetera waaye boo demee ba ca càppandaw ga bu ñu defee demee ba fukki weer ak juróom-ñett fukki weer ak juróom-ñett. ci àdduna si yëpp jàpp nañu ne dina am lu deme ni ki juróom benn fukki euh, million ngi nit ak juróom yoo xam ne amaana ñu faatu ci te dañu ne bu yëf yi tàmbalee dinañ dem ba foog na yëf yi mu ngi xaw a dal waaye boo otul ci lay jolliwaat li tax nag muy jolli mooy Euh, loo xam ne ci gox goxaan yi nga xam ne ak ci quartier yi nga xam ne nit ñu néewu doole ñoo fa ne les pauvres maanaam ñi nga xam ne euh, xam nga ñàkk souvent dafay ànd ak ñàkk xam bu ko defee ñooñu nag ñooy gën a lëmbe mbir yi ndax du ñu am taxawaay bi war ba tax foofu nag lay lay lay lay jolliwaat yëf fii lawaat encore ba tax tey kenn mënu la wax lu mel noonu kañ lay jeex. benn te kañ te te ban ban ban dayoo lay am. ñu ñaan yàlla mu gaaw a jeex te bañ am dayoo bu ñëpp ragal moom ñu yàlla yàlla ñu ngi koy ñaan mu yemale affaire bi fii daal nu mu ci gën a gën a baax alors docteur. Ah. Euh, moom la ñuy ñaan yàlla c'est très important parce que déjà corona def na ay. musiba yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ci àdduna bi fu mu toll nii lëmbe na àdduna bi mun nañu sax il a semé carrément la pagaille dans toute l'économie mondiale aujourd'hui am na sax ñu ne coronavirus dafa siffler la fin de la mondialisation moom mooy première question ma lay laaj pour ñu dugg ci débat bi jërëjëf nga may ma rek nag ma jéggalu ci retard bi lié à d'autres aspects sociaux mm-hmm. moo tax ba ma xaw a nuyu vraiment kilifa yi ma fekk ci plateau bi commencé sama càmmoñ sama xarit Babacar nga xam ne dama ko amel bor <laughs> boo xam ne dinaa ko fay <laughs> vraiment Mortala Kane ñu xam ko yëngoom ak taxawaayam ci secteur privé vice-président CNAES Derneville ñu xam ko ci landerneau politique mais aussi ci casquette bu mu dépeindre donc mu mel ni sa plateau bi kontaan naa trop fekkewaat ko une euh, deuxième fois vraiment te ñuy discuter nag ci thématique bu bu lëmbee àdduna nga wax ko euh, wax nga ko dëgg la waaye li am solo mooy te ñu jàpp ko tey mooy li ñu daan tuddee mondialisation dafa mondialisation Babacar wax na ko ma far ko ci ay kàddoom dañoo bëggoon àdduna nekk village planétaire nga xam ni li ñu naan parfaite mobilité des personnes et des capitaux moom lañ tegoon en avant pour mu doxal lu jëm ni wàllu koom waaye tey jii choc pandémique bii di coronavirus wane na ni dëkk boo munti doon amal puissance militaire boo mën a am nekkal puissance économique boo mën a doon wane na ni finance et économie du loolu moo yor àdduna wan na ni ni dëkk yi dañoo vulnérable ñépp ci yem nag tey préoccupation bi Donald Trump am moom la président Macky Sall am moom la Xi Jinping am moom la président malaisien am donc dafay mel ni kon euh, tey pandémie bi wane na ni maanaam euh, vraiment euh, concept économique yu mag yépp tey daan nañ ndax tey boo xoolee sax mondialisation moo indi woon tey bourse yu mag yi nga jël tey bourse de Paris CAC 40 40 bi tey dafa nërmeelu 12 pour cent la perte si histoire bu mu musee ba am ba léegi musta daanoonu toll noonu nga dem Milan bourse de Milan bourse de de de d'Allemagne ainsi de suite foo dem tey marché financier yi wane na ni vraiment tey nërmeelu am na jaxasoo am na euh, euh, vraiment njaxare am na waaye nag du tee. Euh, ñu war a taxawaat nag ndax dafa am économiste bu mag. buñ naan euh, René Thomas doon wax suy tollee ci fànn yi mu mel ni day mel ni théorie kaw catastrophe ne nit ñi nag taxawaat ndax foofu la doole nag njiit war a feeñee. mu mel ni état nag fa la war a amee doole pour mettre en place mesures yi ndax ñëpp koy suivre waruñu woote panique la peur Esther Duflo mu ngi koy wax prix Nobel la peur a gagné le monde maintenant nag peur boobu nag tey ji tey la ñuy xaar nag état ay principe ma natt ko ci ay juróom principe benn bi mooy. Mhm. état dafa am vocation. tey war a sécuriser en pareille situation euh, économique sanitaire catastrophe état moo war a taxaw defal sécuriser ses populations loolu mooy principal rôle te gis nañu mesures yi si président ñu koy saluer te ñu gis ñëpp ànd ci may saluer tamit ñi si vraiment homme politique yi nekkee tout de l'union que ça soit la majorité ñu gis ñi génn aussi opposition ñëpp ànd doon dans l'unité nationale pour xeexoo ñaareel bi mooy état nag suñu dëkk yu mel na ñun nga xam ni euh, suñu ressource bëriwul parce que économie loolu la sa ressource yu xeebu yi ngay jéem a utiliser de telle sorte que ngay jéem a yokk di changer nekkinu nit ñi tey jii suñu état wane na ni encore suñu système sociaux de base yi ndax yooyu dañoo nërmeelu boo xoolee tey waroon nañu am structure sanitaire yoo xam ne lu jëyee ji toll it waroon nañoo am ay luñ ko tàmbalee mais ñaanuma ko yàlla bis bu lawoon ñu am ay cinquante wala cent cas amuñu structure yoo xam ne tey mën na jël plus de vingt cas coronavirus si unité spéciale yi boo demee hôpital de Fann à part peut-être jéego ñu def tey temps yi def ay hôpital mobile def lu mel ni mettre en place armée bi gis nañ ko mu dem Touba donc mel na ni wane na ni donc priorité yi ak FMI ni mu ko waxee foo ñu recadrer méthode priorité ndax ñu ngi ñuy tagg ñu ngi naan. boo jëlee doing business def nañ ay jéego boo jëlee li mel ni euh, indice inégalité indice de Gini def nañ ay jéego def nañ ay jéego ci wàllu réforme ci wàllu émergence wane nañ ni am nañ ay taux de croissance donc indicateur économique yëpp baax na am nañ taux de croissance yu baax nee nañ maîtriser nañ déséquilibre euh, euh, déséquilibre yi mooy déficit budgétaire beeg yooyu def nañ ay performance ci wàllu finance yokk nañ budget bi budget bi yokku na yooyu yëpp baax na. waaye boo ko xoolee nag mel ni fu mu tani xaw na bale yooyu yëpp. waaw loolu nag boo ko xoolee nga koy méngale maintenant nag les infrastructures socio sanitaire de base day am paradoxe man foofu laa bëgg taxaw ñu taxaw si def seetlu bi nag. Hmm. tey dëgg la première mesure du président nee na. Hmm. plan bi. il faut ñu teg ko ci un milliard quatre cent soixante millions. c'est mais ay la yëwan ñëpp xam nañu un milliard quatre cent pour man tey état waru sax toog di ko wuti ci ndax dañu plan lu ñuy dem wuti xayma ko mais boo jëlee lii liñ naan les les missions indemnité mission yi fonctionnaire waroon def te ñu tëj ko nga jël fonds politique yi mais nga jël tey bu ñu ne woon premier geste bi la pédagogie par exemple tey ñi yor nank réew bi nekk politique yi. mu jëm ci lu mel ni ministre yi euh, lu mel ni assemblée nationale ñoo waroon a njëkk a mettre la main la poche amoon mon avis parce que pour man tey suñu dëkk yu mel nan mel nii ñoom ñooy privilégié yi ndax ñoom lañu ñu dénk gafagag réew mi ba tax na nag ñu war a ñëw en appoint nag les autres ce ñu naan sportifs yeeg yooyu donc mu mel nii boo koy xayma di ko boole euh, euh, pandémie la choc pandémique la. Euh, dina laal monde bi yëpp tey entreprise yi gën a mag Chine moo nekk atelier du monde nekk usine du monde tey seen entreprise bi gën a mag nekkoon Wuhan muy kon nga xam ni moo doon fournir lépp luy pièce électroménager wala électronique li mel ni euh, Allemagne wala France wala wala États-Unis tëj na ay buntam moo doon jox ay Apple Apple nee na ñuy liggéey Taïwan yi nañ toog seen kër lu mel ni Fendeng nee na na ñëpp toog seen kër donc le travail est à l'arrêt mais naturellement mondialisation bi nga xamoon tey mooy tax ba tey ñun ñoo Sénégal dëkk yu mel ni ñun ñoo nekk vraiment vraiment euh, à la queue de la chaîne d'approvisionnement nga xam ne nous sommes les grands grands importateurs nous sommes de ce tey ñun ñoo si gën a sonn ndax su fekkee tey Chine am na possibilité te loolu capacité de résilience am moo ko may ndax gis nañ fi Jinping mettre à contribution l'armée ñu dem ci capitale régionale bu nekk teg fa kii militaire mais ñu est-ce que am nañ moyens yooyu maintenant ñun moyens yi ñu mën a am te ñu war ko doxal mooy am na ay ressources internes yoo xam ne ñu ngi fii man jàpp naa ni. comme yan par exemple. yu bëri tey man tey mesure bu gën a mag bu ma jàppoon ni waroon nañ ko boole su catastrophe yu mel nii parce que président def na ko fi mus nañ fi tëj Sénat. président dafa jógee mu amoon inondation ñu supprimer Sénat am na ay institutions yu mag yu fi nekk yoo xam ni bëriwul njëriñ nañ ko tëj jël xaalis bi def ko ci ci ci ci lutte bi tey par exemple bu xalif ma koy nuyu ma koy siyaar bu baax Sëñ Muntaxa jëlee deux cent millions teg ko ci ci ci ci table ji am na institution yoo xam ñu ngi gérer lu mat brasser ay milliards te waroon nañ leen supprimer te gisuñu njëriñ bi ñaareel bi mesures yi du mesure rek préventive sanitaire parce que mesure préventive sanitaire yooyu day am jeexantal ci liñ naan productivité tey jii ñun université tëj nañ ko lu baax la du ma ne déet école yi tëj nañ ko waaye waroon nañu mun a utiliser ñun enseignants yi ñun étudiants yi utiliser ñu comme benn genre brigade de propagande boo tëjee université yi tëjoo marché yi étudiants yeeg enseignants yi ñooy dem marché yi wala seen jabar yi indi si kii bi si donc waroon naa jàpp naa ni. Mhm. population boo xam ne ñu ngi leen di fay waroon nañ leen mën a utiliser def leen ay brigade de con pour man dafa am patriotisme national bu ñu war a éveiller. boo xam ne tey du tëj ay usine wala confiner rek tëj ay hôpital wala tëj ay structure rek mooy tax affaire affaire bi c'est très sérieux mhm. lii c'est un précédent d'ailleurs OMS mu ngi ko naan mooy crise boo xam ne moo ëpp. durant le siècle. Mhm. donc jàpp naa ne il faut qu'on soit conscient de la crise jaa xam ne mondialisation moom nërmelu na tey tëkk yépp ngi tëj seen i frontières tëj seen i aéroport dëgg la mesures yi waruñu ko def ay mesures yoo xam ne effet de mimétisme la France tëj na rek damay tëj déedéet nañ xool ñun suñuy particularité ak suñuy réalité ay consommateur lañ tey ji opportunité la ñu développer li ñu naan l'économie rurale tey boo demee par exemple ci ay luuma mhm. dëgg la mais tey luuma yooyu ay dañ ko war a profité développé ko. profité mais dañ ko tere nag parce que gouverneur yi ak préfet ñoom ñooy tas yooyu. dëgg gis boo defee lu ma dañ koy tas mais dama bëggoon euh, docteur. Euh, balaa ma ma ma ma dellusiwaat parce que dama bëgg gannaaw bu ma defee premier tour de table bi ñu taxaw nag ci Sénégal naka la war a mun a taxawee à proprement dit nag ci crise bi moo tax ma bëgg a jox Mortala parce que moom mooy ibbi nag li nga xamante ne moo di waxtaan boobu. ndax xam nga CNES boo waxee CNES rek automatiquement yaa ngi wax le secteur privé mm-hmm. te ñoom fu mu toll ñoom ñoom mun nañu ak CNP bu la neexee ak MEDES ak ñeneen ñoom ñoo ŋànk li nga xam xamante ne moo di euh, koom-koomu réew ndax dañ ne aussi euh, secteur privé moom moo yore koom-koomu réew moo tax ma bëgg ko jox kàddu gi laaj ko moom mi nga xamante ne ca la bokk rawatina muy directeur exécutif CNES ñoom ba ñu déggee coow li ak ba coow li tàmbalee ba ba léegi mbir mi euh, ñoom fu mu toll nii lan moo nekk seen est-ce que tiit nañu jaaxle nañu parce que gis nañu également li ay nit ñu ngi maanaam beaucoup de structures ñu ngi fermé jàggul dara sànq ci ngoon dégg ngeen le secteur de l'hôtellerie yi sax ñu ne daañu dem gis njiiti réew mi ne ko nañu tëj hôtel yi est est inquiétante lañ bëgg a xam. Euh, jërëjëf Cheikh liñ fi jot a dégg ci ñu intervenir defe naa euh, ñëpp a ci ànd. Mm-hmm. Euh, vraiment da loo xam ne lii day wane rek ne ni ñu yégee mbir mi dafa law. je pense que est la première fois au Sénégal ah astafurlah mais en tout cas bariwul li ñuy wax parfois musiba dina am révélé leneen. consensus bi ñu am tey. Mm-hmm. ci problème bi am. geste yi ma gis ak wax yi ma dégg coow jibul loolu déjà il faut ñu sant ko yàlla euh, dafa wane rek ne Sénégal wax nañu mën nañu wax lu leen neex waaye bu problème ñëwee ñëpp benn lañ te dañ ci war a jàngat bu àdduna demee bool bëtiku ba neexaat ñu xam ne ñu ñu ni nen la. Mhm. parce que tey amul kenn koo xam ne kii sa xel dal donc réew mi yëpp la. dama bëggoon rek boo ma euh, parce que y a l' aspect économique c'est parce que dama déggee wax boo xam ne c'est important thème bi ñu am yëpp c' la mondialisation. Mhm. nërmelu na est l' internationalisation yëpp dëgg la. mais defe naa suñ taxawaayu démb war nañ ko interroger du ñun rek ah, parce que dégg naa discours Macron ak ñeneen heureusement crise bi tax na ñëpp ngi xalaataat yoon wi ñu jaaroon est-ce que baax na mais ñooñu seen mbir la waaye ñun pays pauvre mm. est-ce que ñun yoon bi ñu jaaroon yëlee ni ñu attan xam ne nuñu ko mm-hmm. li France def li États-Unis def li Italie def Allemagne def attanuñu ko ñaareel bi moo di fi ñu dalee dafa metti parce que dañuy dem ba nga xam ne jamono wëlbati bi nga xam ne Afrique mooy am taux de croissance bi gën a rëy ci àdduna bi yaakaar yëpp jublu ci Afrique. ñu foog ne suñ démarrage ci fini. Mm-hmm. lii ñëw gàllankoor ko. ça veut dire que ñun am nañ chance bu ñu yaakaaroon defe naa lu rek lu bari dina dam euh, euh, ma ñëw ci euh, mondialisation yi beneen affaire bi xam nga dëgg la c'est-à-dire que am na chiffre yu ñuy wax ma di ko dégg tout le temps honnêtement Cheikh tey. amul kenn ku ne mën a wax onde de choc bi nan la toll. yaatuwaay bi profondeur bi ak lan kenn xamu te rek dégg naa ñu naan y a vingt cinq millions de personnes qui vont mourir dans quelque temps alors donc euh, économie yi li dal di jóge Chine jaar Europe ñëw ci ñun mu ngi doog tuuti moo yëg seegu tourisme la commencé parce que tourisme c'est mooy branche directe mhm. ni day jóge Europe ñëw loger hôtel bàyyi ci réew mi koom-koom mu am deuxième élément bon ñoom tëj la ñu mun am deuxième bi mooy les immigrés mhm. aide publique au développement li ñu àdduna bi di dimbalee mook li nga xam ni su immigré yi ci àdduna bi li ñuy andi c'est la même chose weesu na ko sax nga xool ñooñu déjà dañuy xëy di wuti dépense ñoom ñëpp amu ci kenn ko xam ne épargne bu am doole saa fu ñu leen arrêté fu ñu arrêté usine yi ñu nekk wala jaay marché yi ñuy jaay amatuñu lu yónnee Sénégal denc ñu donc ça veut dire que Sénégal consommation bi day normelu ci côté yu bari am na côté yoo xam ne surtout foofu la immigré yi jóge ñooy gën a metti le am na côté yu ëpp am na côté yu metti le donc ça effet yoo xam ne boo ko toogee di ba suba dañu gisagul dara may ñaan yàlla ñu bañ gis loolu ñu buñ mu ump ñu mais euh, mondialisation bi professeur wax c'est exactement ça c'est-à-dire que aujourd'hui dañu dem interaction boo xam ne bii léegi même bu Chine fayee tey sax Chine bu affaire am fayee tey li nekk Europe di law ci yeneen kii dinañu dal c'est ça le problème loolu moo metti ci affaire bi ma déggee ñu naan Chine ñu ngi commencé am na nouvelle yu baax foofu mais dañ ne usine du monde lépp lu nekk ci àdduna bi presque ñoo ko doon def xoolal léegi médicament àdduna bi yëpp du ñu rek ah c' ñun négligence bi ñu mondialisation mondialisation andi du ñun rek dañu néew doole rek on vient de découvrir que quatre vingt wala quatre vingt dix pour cent des médicaments c' en Chine kenn mësu ko xalaat da ngay xëy dem pharmacie jënd mais kenn mësu ko xam directement donc dafa am yoo xam ne euh, Union européenne mu ngi doo xam ne ay masques sax amu ko ay usines textiles ñoo mujj changé. Mhm. di ñaw ay ay ay masques. finalement donc la Chine a tout récupéré alors. non mais mais moo tax kon Trump bu muy casse di dóor loxo bi ci il a eu raison wala. xam nga théoriser. Hmm. te on n'a pas fait attention. on a été tous victimes de cela li ñuy wax concept bi ñuy wax le le le monde est un village mu ngi doon doon réalité village lu dal kii dal keneen. néeg bi bu tàkkee day dal ci benn ñu koy doog vivre mais dañu ko doon wax ni rek bu doon théorie ñu bari dañu foog ne c'est nañu délégué à la Chine beaucoup de choses pour l'Europe fabrication malpropre la yoo xam ne vraiment dépassé nañu ils ont dans le contenu intellectuel loolu la ñu nekkoon moo tax ñu nañ bàyyi usines yëpp Chine di ko def alors léegi ñoom léegi lañ doog xam ne liggéey ñu dara pays africain yi du ñuul rek nañu waxante dëgg euh, am na ñoo xam ne war il faut leen institution internationale banque mondiale FMI damay déggatuñu ñu naan waroon nañu def lii réew mi je vous rappelle que vers les cinq banque mondiale et fi ñooñu ñu ñu ni ñu li ngeen di def jëmul yoon defar ay montage auto fàtte ngeen bi ñuy defar ay gaynde di wët euh, euh, merci kii la on s'appelle Allemagne ñu di jox moteur ñuy def les les voitures gaynde yu mm-hmm, bari ñu ko doon jéem a def suñu kii la di béy ceeb ñu ne ñu non ceeb Vietnam moo ko gën a mën a def seen coût bi ngeen di produire un hectare jaru ko da ngeen di sonn wut leen xaalis parce que am na théoricien dans l'économie yi wax loolu nañ soxlawul ngay liggéey loo xam ne lii euh, keneen man na ko def mu gën la yomb bàyyi li nga wut xaalis yow saaboo boo amee nga soxla ko crise u 2008 moom mës a njëkk a def la l'alerte te ñi defuñu attention crise 2008 am na un moment donné

ñu crise boobu moo ñu won ni nga réew il faut nga ngay produire ñun yàgg nañ ko wax secteur privé in waxuma indépendance ak autonomie mais dafa am y a des choses yoo xam ne dafa stratégique xam nga euh, Italie tëj nañ ko mais mën nañ débrouiller l'économie de de l'Europe c'est une économie salariée ñu bari ñi si ëpp dañu am salaire soo amee sa xaalis fin du mois mën nga dem jënd lu la neex Sénégal ñiy dox tous les jours da ngay jógee yow nga ñëwut boo liggéey boo jóg wénul du am dépense. parce que nee secteur kooku boo ko tëjee mu torox. secteur informel bi rek boo xoolee ëpp na 90 pour cent. du c' est ça c' est à dire que des réalités yoo xam nit ñi dañ ko dul xalaat nous on a des modes de développement ko xalaatul. gis nga dama la bu fekkente ne am na kër ñu ne bu boo leen jéem nga ne tey kenn du génn sa kër suba kenn du kenn du que saa ñu xëyee dañuy wuti dépense boo nee tëj naa marché yi musiba que nit ñi il faut ñu wuti dépense. Europe da ngay am sa salaire am sa liggéey mais am na loo denc c'est ça le problème la salisation dafa bari wu Sénégal. dafa am yoo xam ne mais mënuñu bañ tëj ima kii marché aussi. parce que ce moo tax ma ne la état bi ñu jàpp dafa metti waxuma ne dañ ko war a def dama ne Cheikh. waaw li ñu daal moo gën a metti li dal ñeneen ñi. dëgg la ñun dañu amul pays continent le plus pauvre suñu ressort dafa dam nos états sont aussi pauvres que nos entreprises et nos nos nos, population gis nga ay mesures dinañ ci ñëw léegi mesures yi nga xam ne Europe def nag suñu budget daf ko attan mënuñu ko. léegi nag mën nañu wax pourquoi amuñu moyen yu ba léegi mais li Europe mën a fexe débrouiller ñun mënuñu ko parce que ñu les moyens de temps les individus n'ont pas assez déjà là amuñu dara benn mat la boo xam ne dañu fay ñu ressource loolu tax dafay bi dafa nar a metti dafa mën a metti bi ñu mën a jox rek moo di pour les entreprises léegi war nañ xam ne économie entreprise moo yor économie créer richesse dañu nekkoon ci logique répartition de la richesse personne mësul xalaat logique création de richesse moo tax li ñu dal su fekkee ne retourné ci entreprise te dañu dañu tiit secteur de la pêche am na ku mu wax léegi mu ne ma mais ñun man Italie la ñu exporté Espagne léegi nan la ñuy def dañu nar a parce que on ne peut plus exporter tourisme bi xam nga gis nga li ci xew. Mm-hmm. yeneen secteur yeneen secteur c'est-à-dire que ñun dañu dañu doon un loolu mooy problème bi cest à fi mu fi mu ñu dalee dafa nit mooy ñaari pays ñebe ñaari continent Europe première économie mondiale. suñu exportation parce que ñu foofu la ñu visé woon ñun yooyu foofu la ñu kii ak euh, la Chine la Chine moo doon provisionné adduna bi duñu ñu approvisionné ñun tam suñu marché parce que Chine dafa am ñaari pôle ci ñun am na bu au début de la crise bu doon dafa yem Chine rek am na ñoo xam ne dañu am avantage parce que importation bi rey les Sénégalais les entreprises Chine lay jóge mhm. fabriqué à moindre coût wesaare ci àdduna bi boobu loolu amoon na ñoo xam ne dañ ne ñun dañuy rebondir parce que li ñu doon importer Chine bu mënatul am dañuy rebondir defar yenn articles yi comme ça au moins du ñu amati un concurrent aussi redoutable que la Chine ci marché bi. artisans yi commencé woon di kii ñenn ñi def loolu te heureusement xam nga gerte gi ñu ngi doon wax gerte gi dañu ne woon gerte gi nañu fexe di ko jaay chinois mu ñu arrêté ne parce que amatul gerte. figurez-vous un seul instant crise bi ñëw avant chinois yi di jënd gerte gi loxo lay des. j'ai toujours dit réew da ngay produire ak lu metti mi da ngay amul bu développé te mooy économie surtout industrie mooy colonne vertébrale bien sûr naa ko laaj nga xam ne patronat bi quand yaa ngi wax ci jur ak gerte gi mais est-ce que yéen également waru leen mën a investir ci domaine boobu parce que bu fekkee dañuy bay te amuñu des usines de transformation nécessairement chinois yi dañuy ñëw jënd ko mais yéen ban part de responsabilité ngeen ci am le patronat par rapport à xam nga loolu déjà damay defoon de manière euh, kii la xam nga dama bëgg ñu xam ne hmm. patronat du du benn secte du benn caste c'est-à-dire que dama bëgg képp ku jóg am initiative nga doon entrepreneur c'est pas réservé c'est pas un domaine de réservé donc bu ñuy lancer le <laughs> les pierres. non non non non non c'est une c'est c'est pour animer un peu. Mm. loolu loolu la cest aujourd'hui xam nga gerte gi dama waxoon benn solution pour prendre ci gerte bala moom maa échappé. Mm. dama ne woon au lieu que ñu ko day jaay les chinois. pourquoi on n'oblige pas les Chinois à venir mettre en place ici des industries de trituration, qui est le, la première stade. la l'arachide de triturer Sénégal. bu ñu bëggee huile brute ni ñu yóbbu ko raffiné ko jaay ñun ñu des ak suñu tourteau ak huile def la ñu a def on aurait sur deux plans on vendu notre arachide et on une industrie qui marche c'est très simple c'est pas la peine dire aux gens on vous vend pas obligeons les premiers segments bi ñu def ko Sénégal installé ko yóbbu huile brute après ñu bàyyi suñu tourteau nga xam ne c'est pour l'élevage dama Sénégal nous le secteur privé am na responsabilité je mais xam nga entreprise li may wax ci tubaab laa ko mën a wax hmm. une entreprise ne peut compétitive environnement bi wër entreprise administration les routes ah. les kii la fiscalité yooyu yëpp boo demee Chine ci terminé une contribution bu ngay avec la euh, le FMI c'est sur le le PSE e. mais problème yëpp mu ngi noonu c'est que boo rangalee tous les manquements de suñu environnement yoo xam dafa accumulé depuis les années 60 te du ñun rek yeneen pays la ah yooyu tant que réglé wuñu ko dina am ay yu génn mais environnement bi tënk secteur privé moo tax mais amul kenn un homme du secteur privé. Mhm. boo xam ne bi investir nga sa xaalis. hypothéquer sa xaalis hypothéquer sa kër say këru do lépp nga hypothéquer ko pour nga évoluer te bëggoo tu es premier comme un entraîneur dans un match dans une équipe moo gën a bëgg mu réussir mhm. donc bu réussir am na lu soxe loolu mooy problème bi mais je reconnais mhm. que aujourd'hui nañ ci ñëw léegi peut-être ñu xool état bi ak secteur privé consommateur ak tout parce que loolu rek moo ñu d'accord ah alors Babacar. Euh, dinaa la bàyyi nga am ay ay ay ay ay maanaam. réponse supplémentaire yoo jot indi quand même ci li nga jot dégg fii yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. mais Babacar dafa am benn mbir xëy na xaw nañ ko laaxaale tuuti. Mm-hmm. parce que lu tax ma koy wax euh, maanaam euh, aujourd'hui crise bi nga xam ne dafa ñëw. dafa ñëw yegg si ci moment boo xamante ne Sénégal dafa dund ay jafe-jafe xam nga entreprise yi yaa ngi koy wax fan yi passé toog nañ lu yàgg kenn fayu leen. gis nga mbiru terre bi toog na lu yàgg dawul. tey ñi ñuy sumb ay mbiru BRT. yi lii yëpp ça arrive dans un contexte boo xamante ne fonctionnement particulier ba am na sax naan fala budda maanaam faw ñu ñu ñu rebaloritaat yi mais secteur informel bi nga xamante ne mu ngi ci biir ah. te yaa ngi koy wax sànq mhm. te nga gis ne quand même maanaam ñi nga xam ne aussi jot nañoo dem bitim réew ils importent wala ñi ngi dugal ci xaalis ci réew mi lu ëpp quelque chose comme milliards euh, de francs CFA par an tey jafe-jafe yi nga xamante ne yëpp ñu ngi jànkonteeg moom naka la état bi si sa gis-gis war a mën a taxawee pour vraiment mën a jàppale Sénégal yi wala boog askan bi euh, ci jafe-jafe yi ñu ngi jànkonteeg moom waaw xoolee état bi fi mu nekk nii wax nga ko état bi moom dafa faible par rapport ak situation bi ñu dund même impôt xam nga yaa ngi dégg waa tourisme daal ne. Hmm. il faut que état accompagner leen. Euh, si finance si euh, fiscal au niveau fiscal jàppale leen mais xam nga l'état bu génnee si lii. est-ce que dina amati gafa bu xaw a dëgër pour loolu. mais est-ce que nga defee l'État aussi bu dina la bàyyi nga yëngal. mais État bu bu bu bu bu bu maanaam serré la ceinture wala boobu bu fekkee dafa yokk affaire yi. ne dafay wut xaalis est-ce que loolu dina baax. parce que les entreprises sont presque mortes. je crois que am na quelques esquisses solution yoo xam ni doon na génn par rapport ak État bi ni mu war a comporter woo. bien sûr mais noonu day nekk par rapport ak ni ñuy doxalee ba léegi parce que Cheikh bu fekkee état bi da nga ne même même euh, douane boo demee recette yi gars yi nañ ci wax mais dafa wàcc doole. parce que même sax ñu ngi naan Afrique maanaam euh, liggéeyuñu Europe Europe yi ñoom ñooy produire di ñu jaay mais même ñi nga xam ne ñoom ñooy produire muy par exemple des pays muy cacao muy café tout ça mais génnatul c'est que maanaam ñu ngi liggéey pour exporter mais dematul parce que marché dañu ko fermé. c'est ça donc ça veut dire que ñi nga xam ni ñu ngi woon euh, dans une dynamique boo xam ni évolutive ñi ngi doon dem même ñooñu dañoo am problème donc ça veut dire que am na ñu proposé que ni nañ ko def inter africain maanaam nañuy nañuy demlanteel suñu bopp. bu Afrique demalanteel boppam peut que problème yu bëri dina wàññeeku. Mhm. par exemple Sénégal nga xam ni peut am na yu mu amul Côte d'Ivoire mën na koo jox wala ainsi yu demee noonu mais je crois que yegg foofu mais état moom li ma lay wax situation bi ñu toll parce que même pétrole bi ñu ne dafa wàcc. Mhm. ñëpp di tàccu ne peut mën na nekk chance à 30 dollars mais aujourd'hui au niveau des recettes douani dañ koy gis. parce que bu ñu indi pétrole bi pour taxer ko mais day gën a wàññi day am ay baisse de recettes yoo xam ni au niveau de la douane day feeñ. loolu il faut que donc sénégalais xam gis nga crise bi Cheikh man je crois que peut-être day nekk euh, day nekk une manière daal ñuy pousser ñu ñu changer ni ñu doon defee. mais bu ñu toppee ci logique bi ñu topp ni état bi di doxalee nii pour par exemple France ñu ngi dimbali seeni i entreprise euh, pay nag moitié chômage bi ñuy def. mais ñun état bi mënu ko. Macron génne na 300 milliards de dollars si je ah, dinañ ko génne parce te xoolal ñoom en plus wax na fi crise de 2008 mais dafa laal vraiment toute l'économie européenne en tout cas occidentale ñu jógee gis nga ñu ngi comparé li ñuy dund nii en 1929 la crise économique bi nga xamoon dafa laaloon pour di travailler foofu aux États-Unis ba daaneel ko nërmel ko nee nañ fi mu nekk nii euh, avec euh, le Covid 19 mi ngi mi ngi yàgg foofu wala sax romb na ko. Hmm? loo xam ne dunduñu ko woon depuis pays européens yi génn si 2008 une crise économique boo xam ne ñëpp gis nañ ko entreprise yu bëri fermé lu mel ni États-Unis ba dañuy renflouer seeni i pour mën a jógaat ñun Afrique ba léegi ñu ngi si situation bi rek di xool lu ñu jóge mais aujourd'hui je crois que moo tax wax na ko au moment suñu taux de croissance ñëpp ngi tàccu naan mi ngi jóg lii daal di ñëw daal ñuy ngàdd moo tax je crois cher. Hmm. pour man état bi aujourd'hui dañu war a toogaat daal di waxtaanaat daal di xool naka lañ si mën a génne à un moment donné il est vrai. orientation yi nga xam ni investissement yi war dañ ko mën a xoolaat parce que au moment où peut-être suñu soxla nekkoon na feneen. Mhm. Euh, tudd nga fi terre à l'arrêt euh, tudd nga fi maa ngi maa ngi tooñ sax keroog di wax ni pont bi nga xam ni passerelle bi nga xam ni Cambérène moo romb foofu te ñu bloqué depuis quelque temps ma ne ah xanaa de léegi war nañu ko mën a defaraat benn waay ne ma te quelqu'un qui n'est pas censé même connaître les rouages de l'économie mu ne ma ah est-ce que am na xaalis bu mu ko yeggalee donc aujourd'hui Euh, faible na feeb boo xam ni travaux yu bëri ba ci terre beeg yooyu ñu dem léegi ça veut pour temps ñi ngi investir su des infrastructures yoo xam ni léegi jeux olympiques de la jeunesse bi nga xam ni moo tax wax nañ ko fii je le répète ñu investir stade u 153 milliards est-ce que jeux olympiques boobu dina amati parce que ña ko war a def sa waay est ce que dina ñëwati est ce que dina ko ah, fekk. compétition ah, sportive yu bëri dàq nañ ko de. loolu de suite. bi mën na ko yaakaar donc je crois bi en un moment donné pour man. Mm. Euh, bàyyi na li nga xam ne moo nekkoon essentiel par rapport ak investissement investisseur parce que bu fekkee dañ ko doon xaar si si autosuffisance en riz euh, en 2017 ñu ne foofu lay yem. vraiment ñu sentiroon euh, les premières années yu toppoon si nguuru Macky Sall mi ngi doon jóg. mais 2017 bu mu yeggee bañu ñu ne des na tuuti affaire bi dafa mel ni dafa nërmeeluwaat en tout cas suivi bi war a am amul de telle sorte que aujourd'hui mais ceeb bi nga yaakaar muy ñëw mais da nga koy important donc pénurie buy am est-ce que ça doit nous pousser. soit ñu yokk bayu ceeb bi wala ñu lekk li nga xam ne moom la ñuy produire fii. mais est-ce que mais xam nga lu ñuy produire ñun doy ñu déjà am na ay xam-xam yu ne est-ce que quand même Sénégal warul mën a ibbi benn pont jéem a gisanteeg par exemple président chinois xool naka la war a mën a ibbi benn pont de telle sorte que ceebam bi bu ñëwee. non dañ ko mën a dugal. non non Cheikh lu mu war a jaaree. non non Cheikh man xam nga dañuy wax quand même si solution yoo xam ni. Hmm. parce que conjoncturel moom mooy que ni loolu peut être tu peux trouver une solution. mais comment on peut a def. nu ñu ah. mën a def ba nga xam ni bu situation yu mel nii dale ñu vraiment dinañ mën a am kattan boo xam nañu résister. mais du du compter si chinois yi ak asiatiques yi pour ñu continuer la jox ceeb. man je crois que amoon nañu dynamique boo xam ni ci ceeb bi moom euh, vraiment baaxoon naa le riz du Waalo ak tout ça. xaw ma qu'est-ce qui s'est passé entre temps. par rapport à pour nous permettre bu ñu ngi béy lu maanaam pénurie si li ñuy lekk kenn du ko xalaat c'est important beneen mbir mi mooy wax nañ ko vraiment il faut que ñuy transformer li nga xam ne am nañ ko matière première ñàkkuñu ko boo demee dans le sud du pays tout ce qui est fruit ak yooyu dafa bëri ba nga xamee ni il suffisait que ñu def petite unité de transformation le problème réglé mais les gens le disent ñëpp a ko xam mais on le fait pas léegi nag euh, c'est là où je reviens sur ma question est-ce que l'État dafa war a joxe autorisation pour ñu def ko wala euh, nos industriels en tout cas notre patronat en général ceux qui investissent dans l'économie est-ce que waruñu quand même commencer investir ci aspect yooyu d'autant plus que c'est des c'est des activités porteuses muy muy gerte gi pour transformer ko yu demee noonu Sonacos ak yooyu euh, di imposer ñu agriculteurs yi pour ñu jaay leen à des prix mais pourquoi ñu am ay usines de transformation bu ñu defee diwlin nañ ci gagné deux fois loolu wax nañ ko. Mm-hmm. man je crois que foofu la ñu toll. il faut que Sénégal ñu commencer réfléchir de manière à que lan la ñu mën a transformer fii ba nga xam ni c'est vrai mën nañoo bañ a importer il faut mu am mais naka lañ ci mën a génne. Mm-hmm. est-ce que war nañoo espérer émigré yi nga xam ne dem moo tax xale yi di dugg gaal Barça wala Barsaq di xalaat ni l'aide au développement tolloo. ak li nga xam ne émigré yooyu ñu ngi koy def te ñu si bëri liggéeyuñu de manière durable c'est des yoo xam ni vendeur à la sauvette ak yooyu lañ hmm. maa ngi dégg maa ngi dégg je l'ai euh, dans la presse pour terminer dans la presse occidentale euh, française certainement waa ji nga xam ni euh, infecté woon nañ ko en tout cas maladie bi jot na Covid ki ki ñëwoon pour dëjal doomam xuma j'ai lu dans la presse occidentale ñu ne fi mu doon jaaye les gens se sont cotisés ah pour dire ñoo ko paye billet d'avion bi mu ñëwee ak nekkin pendant xawma deux semaines yi mu waroon nekk nekk Sénégal xam nga ñooñu ils ont des des trucs des activités précaires si ñooñu la ñu yaakaar pour indi li ñu leen di may ak loolu indi est-ce que on peut continuer à vivre de ça jeunes yooyu Cheikh bu ñu leen jàppalewul l'économie informelle ñoom ñoo ma ko gën a mën a wax parce que vraiment euh, moo tax yàgg nañ si parce que ñu ngi liggéey ak ñoom mais l'économie informelle comment on peut faire jeunes qui des villages ñu war leen a indil ndox là où ñu bañ a ñëw Dakar tooxal ci VDN bi di yore dix mille francs ci seen loxo pour mën a dundal seen njaboot dundal seen i njaboot comment on peut faire pour ñooñu ñu yokk seen activité pour leen loolu rek la. est-ce que ñooñu daañu yëngatu la main d'œuvre est là parce que produit yi ñuy jaayee xaw ma ku ko souligner fii parmi vous maanaam ci chinois yi parce que ñoom souvent da gis euh, concurrence quand même les produits yi ñuy fabriqué fii dafa naa mortal la. mais ñoom sax fu mu doon dara jógatul Chine léegi lépp bloqué. alors que ngaa yaa ngi ngi fi am na jigéen ñu la way wax ni sax il préfère elle préfère acheter si waa ngaay que chinois yi parce que day gaaw a yàqu ah, mais loolu am na mais comment on peut faire pour que l'artisanat mu bañ a yem si wax rek formation bi baax na mais am na ñoo xam ne am nañ formation ba pare comment les aider pour que ñu nekk des entrepreneurs liggéey mhm. je crois que loolu l'État le sait Bien sûr. mais le geste nag pour le faire mooy problème pourquoi personne ne sait Babacar sur le long terme là mais fu mu toll nii situation dafa ne këtt na jonn te sikki ma lakkandoo lak lan la war a def fu mu toll nii nag parce que population yi jaaxle nañu ah. jërëjëf foog naa bu ñu déglu intervention yi fi am rawatina bi nga xam ne mooy bu professeur bi nga xam ne j'apprécie beaucoup qualité wu intervention bi ak euh, densité bi euh, man li ma ci euh, jëlee moo di dafay gën a dëgëral suñu vision ñun vision wu parti pour l'action citoyenne. Euh, sànq Babacar dafa ne ab patronat nu mu war a def ba jàppale euh, réew mi ci wàllum koom développer industrie yi surtout ci wàllu gerte gi ma bëggoon ko wax ne dañu war a changer paradigme ndax xam nga gerte gi. Hmm. tubaab bee fi indi woon. pour def une production de rente. Hmm. ñoom dañ ko soxla woon ci li ñu doon def fale tugal. boo déglee dé déggee li professeur bi doon expliquer sànq euh, mun nañ ko interpréter ni ki ñun suñu suñu nguur gi muy nguuru Afrique yëpp daanaka boo seetloo dañuy doxal mbir yi mel ni ki pour neex li am tugal li tugal li tubaab yi bëgg gis nga sànq li Mor Talla wax mu ne am na jamono bëggoon nañ fi def industrie waaye waa FMI ak ñooy ñëw nañu ne non lii da ngeen di defee na la ñoom it ñu def noonu non dañu war a xam li ñu bëgg nañu doxal li nga xam ne. moom la ñu bëgg ñun ñu doxal ko ci anam yi ñu ko bëggee ñun te loolu mun nañ ko def te mun na dox bu boobaa bu ñu bu ma ñëwee ci wax wàllu agriculture sànq euh, euh, professeur nee na effectivement man ànd ci événement bi xew nii muy coronavirus bi li mu ñu war a jàngal moo di. Mm-hmm. nañu recentrer wat mbir yi ci suñu production inter intérieure ak consommation intérieure bi nga xam ne dañu koy dañu koy euh, orienté ci li nga xam ne moom la ñuy produire fii. parce que bu ñuy continuer di jéegaane li jóge ci bitim réew dinañu continuer am problème mais loolu naka lañ koy mën a defee il faut que pour def ko xam naa ne xëj na dina xat pour ñu def ko ci ci ci diiru coronavirus bi mais nañu léegi jublu ci une autre façon de produire changer méthode de production agriculturelle yi mënuñu continuer di béy ci ci béyu taw il faut ñu maîtriser ndox mi naka lañ koy maîtriser dafa am ay benn benn benn cadre boo xam ne il faut ñu changer ko il faut ñu fexe ba producteur yépp ci Sénégal mun a am ay territoire yu mag mais loolu il faut ñu organiser waat remembrement territorial bi il des de, des terres pardon il faut ñu xoolaat ni coopérative yi di organiser woo donc loolu état moo koy organiser. loolu moo ko waxoo loolu quoi domaine agricole yooyu communautaire yi. non loolu domaine agricole yooyu ay pàcc yu ndaw ay groupe yu ndaw la mun a man li may wax mooy Sénégal yépp lay laal. Ah. pour mu laal Sénégal yépp il faut ñu changer ni ñuy doxalee. benn bi il faut ñu déplacer yenn village ñu ngi ko waaye ñun le regroupement stratégique des villages xëy na du duñ ko mun a waxtaanee tey mais mun naa leen wax ne tournée yi ñu def yëpp bi ñu toogee ba expliquer ko avantage yi mu am yëpp nit ñi amu ci kenn ku teggi tànkam ci loolu nee nañu loolu ba dina baax ci ñun ndax bu ñu fexee ba di leen di regrouper dinañu mun a am euh, li ñuy wooye une une taille critique boo xam ne bu boobaa dinañu mun a organiser nit ñi nag ñu jublu ci agriculture intensive boo xam ne dañ leen di boole boole seen suuf yi ñu jox leen ay matériel matériel jumtukaay yu am ndoole ndax nag bu ngeen fàttalikoo jumtukaay yi nga xam ne dañ koy béyee ak ay fas ak nag ak yooyu mais kooku Senghor moo ko fi indi te bi mu koy indi ci jamono yooyu nit ñi dañu jaaxle woon ndax dañu ne woon ñoom béyu loxo rek la ñu xamoon léegi dañu war a jàll beneen station boo xam ne béykat bi dafa war a am matériel de de de de production bu intensive mais boobu nag il faut mu maîtriser ndox mi kon gis ngeen ne il faut ñu fexe ba dajale leen dajale leen ci suuf yi bu boobaa état mun leen financer ay forage mun leen financer ay ay ay matériel de production de de bu ko defee production bi mun a intensive ah bu boobaa nag euh, euh, entreprise yi mun a orienté wu ci transformation de masse boobu sax balaa ñuy wax ci entreprise yi jigéen ñi nekk ci gox-goxaan yi ñoom la ñuy former gën a former parce que bu boobaa du ñu nem di uti matt du ñu dem di uti ndox ci àll bi bu boobaa lépp mu ngi sur place bu ko defee dañuy gagner en temps bu ko defee ñu mun leen former ci transformation mu doon les petites Euh, euh, euh trans euh, de transformation artisanale boobu ñëw fekk si li nga xam ne moom la entreprise yi mun a def au niveau industriel mu doon production boo xam ne du yàgg ñu mun a produir lu doy pour ñun mu ñu mun a produire lu doy pour exporter kon loolu bokk na ci solution yi nga xam ne bu lii paasee wax dëgg suñu jàmbaar yi nekk ci kaw war nañu ko mun a xoolaat ànd ceeg boroom xam-xam yi nga xam ne mel ni ki professeur ma daaneel ci li nga xam ne euh, bi 2012 bi président Macky Sall falo mhm. fii foog naa ci salle bi la woon euh, ñu def benn émission ak euh, donc Mohamed Tunkara mhm. bi ñuy daaneel émission bi dafa ma ne lan ngay conseiller président Macky Sall ma ne ko bu ma sañoon bokk na ci yenn yi ma ko conseil mais am na ci benn boo xam ne dafa ma dafa ma revenir dama ko ne bu ma sañoon président Macky Sall day taxawal benn kuréel bu ma xam ne shadow cabinet la koy shadow cabinet maanaam euh, kuréel boo xam ne boroom xam-xam yu mel ni professeur ak ñeneen ak ñeneen ci ci fànn yu bëri ñu dar ko pour def li nga xam ne mooy prospective maanaam xool li nga xam ne exeegul lu mel ni kii ay ay attaques yu mel nii yu mel attaque parce que attaque biologique léegi fi mu ne nii ñëpp xam nañu ne ça existe maanaam tey ku la ku la bëgg a xeex mun na la xeex. ci feebarloo sa sa askan. Ah, mais nag waaw mais kon yooyu dafa laaj borom xam-xam. mais Covid 19 kenn sóoraale wu ko woon. ah am na ñu ko sóoraale nag am na ñu ko sóoraale nag loolu laa la bëgg wax mais euh, ñun ñi donte ñun amuñu doole ci suñu réew bu ñu amoon borom xam-xam yi ñu dar président de la république je vous garantis que du yàgg euh, réew mi euh, tollu feneen loolu nag moom mooy suñu métit ñun. Mhm. parce que fi ñu toll nii tey léegi on a au mur maanaam tey amatul solution lu dul soppeeku. wala nag wala ñun ñëpp ñu des ci il faut ñu changer wala ñun ñëpp al ñu alaku loolu nag foog naa ñu ko yàlla xam naa nag bu ñu demee ba ci kanam bu leen neexee dinaa leen mën a limal yenn proposition yi nga xam ne bëgg naa ko def ci lañ ci euh, yow ci la ñu mujjee yow mais docteur man damay ñëw ci yow tey fu situation bi toll xam nga am na ay plan yu bëri quand même tegoon nañ ko te kenn sóoraaloon loolu mais est-ce que yaakaar nga ne quand même pour euh, euh, réajuster yenn mbir yi jàppale entreprise yi nga xamante ne fu mu toll nii sonn nañu ndax euh, askan bi itam sonn na est-ce que yaakaaroo ne forcément war nañ dem vers une loi de finances rectificative. oui FMI wax na ko d'ailleurs conseillé na fermement. ma d'accord ci pour la première fois ma d'accord ak sax institution yooyu nee nañ il faut que état Sénégal def li ñu naan recadrage budgétaire te doy doon lu yomb. parce que ñu ngi leer du budget programme léegi budget programme ministres yi ñoo am possibilité boo amee dépassement wala insuffisance dépassement des dépenses wala insuffisance des recettes ñu mën a réallouer ko d'ailleurs opportunité la jàpp naa ne budget programme bi sax ça vient à point nommé parce que dina mën a permettre ñu joyantin yenn politique sectorielle yi mais li am solo tey mhm. te ñu war ko def mooy bu ñu réere mbir ne pandémie bii nii di coronavirus nuróowul ak yi fi jaar foog ga ñu xam loolu du loo xam ne day réglé wu sur trois mois quatre mois ñu jàll loolu il faut qu'on soit vraiment près à c'est une guerre en fait tey dundoon nañ fi yu mel nii mu romb amoon na fi virus espagnol 1918 amoon na fi euh, li ñu naan euh, peste bi amoon na fi SRAS en 2003 ci Chine lu mel noonu la comme virus yu mel nii amoon na fii vache folle yu mel noonu yooyu yëpp génie humaine amoon na capacité tey ba vaincre na ko mais bii nag forme bi muy ñëwee ak mode de transmission yi dafa dépassé ñëpp saa di dire daf ñu bett ba tax na donc bu ñu bu bu dee mesure sanitaire yi rek la ñuy jël conséquences de énorme ndax tey jii Sénégal dafa amoon ambition ñu lancé ko muy le PAP 2. Euh, euh, les les programmes d'action prioritaire bi lancé phase 2 bi ñoo amoon ay engagement yu mag yoo xam ni demoon nañ club de Paris ñu jox ñu ko ay milliers de milliards. Mhm. mais tey loo si gis mooy mbetteel parce que lu tax tey OMS mi nga xam ni moo yor kuréelu li lu jëm ci wàllu faj yooyu dafa def appel d'offre boo xam ni appel de fonds boo xam ni toll na si cent mille milliards de francs CFA cent mille milliards de francs fas boo xam ni tey moom la ñu soxla xayma ko. pour mën a xeex ak virus bi dafa mel ni donc ñun la ñu soxla woon boo moytu dañ ko réorienté ci xeex virus bi ndax loolu mooy doon priorité Union européenne ma ngi koy def tey banque centrale chinoise teg na ci table ji plus de quatre cent mille milliards de francs CFA boo xam ne tey faw ñu dem a trouver pour régler problème euh, maa ngi koy dégg sànq fondation Bill Gates def naa ci Mortala kan def na plus de six mille milliards donc boo xoolee ressources yi. yi nga xam ne tey moo waroon a dem financer avenir u Afrique nga xam moo doon potentialité bi tey ñu ngi koy retourner parce que pandémie am na donc day am lu ñu naan coût d'opportunité te loolu frein la day am frein parce que dañoo engagé jël engagement en investissement yu am solo yoo xam ne tey jii dina asphyxier. yaakaar nga ne est-ce que mën na impacter ci pétrole bi nga xam ne mu ngi ñëw en 2022. opportunité la woon pétrole bi pour ñun mais ay la yéwén. Ah, day am choc d'offre baisse des prix. tey Arabie Saoudi wàññi na prix yi ndax mu ngi si 30 dollars opportunité woon parce que ñun ay producteurs la ñuy dem 2022 suñu sañoon pétrole bi yokk ñu mën ko jaay mën a fule waaye nag dama si am ba léegi ñax ndax am nañ pour man lu ëppoon pétrole ak léegi pétrole bi ma ñu ngi koy coow mais man jàpp naa ni à na on a des ressources beaucoup plus important ressources yi dëgg nañ fi or mais fer de Falémé mi ngi fi. or bi ñaata la am on on produit deux mille huit cent trente huit kilogrammes d'or par an deux mille huit cent trente huit on produit du zircon. Mm on produit du fer. mais loo si gis mooy tey ressources yooyu pour man capacité yu mu waroon a am pour transformer suñu structure économique yi dafa des c'est-à-dire efficacité bi utilisation ressources yooyu des na boo xoolee c'est quelque cinquante milliards la ñuy am ci or bi en terme de recette. Mm. recettes yi euh, mortal junj na ko tey. Euh, impact direct affaire bi euh, euh, virus bi mooy hôtel yi dañuy tëj donc ñoom privé yi dañuy am problème dina baisser recettes yi te pourtant Sénégal may saluer tey programme bu am solo bi nga xam ne tey la direction de l' administration fiscale mu ngi ko doon mettre en place muy initiative bu am solo. muy le plan Yaatal mu nekkoon nag. amoon na avis tey benn bouf bouée de sauvetage boo xam ne tey doon na renflouer les caisses. parce mais avec le Covid avec la fermeture j'allais dire l'arrêt des activités bu ñu jàppee schéma pessimiste bi nga xam ne dinaa si ñëw mu nekk ñeent yoo xam ne takk naa ko bu nekk conséquence bi muy am ce sera redoutable jàpp naa ni tey. wax ñu te état bi wax ñu conséquence yi simple. waaw y' a yoo xam ne tey bi si njëkk mooy bi ñu nekk di dund nii. Hmm. mooy li naan maîtrise rapide. jàpp naa ni maîtrise rapide bi mesures yi buñ ko doxalee vraiment te teg euh, Derneville wax ko ñi nga xam ni. Euh, ñoom ñoo am xam-xam bi am jumtukaay yi ma si saluer travaux yu bëri yu am solo yu mel ni professeur Daouda Ndiaye ba nekk faculté de médecine ak professeur Mbuub ñu koy def ñu jiital nag les technicien parce que nag bu bu bu bu situation exceptionnelle amee nañ def ay mesures exceptionnelles politique wala tur am nañ jiital techniciens yi ñoom def nañ si ay jéego yu am solo xam nañ génome bi même su fekkee vaccin bi trouvé guñ ko ndax Euh, virus bi day changé wu ni muy manifesté woo si yow mën na ko bañ a manifesté woo si Samba wala si Demba wala si Paul donc trouver vaccin bi day difficile mais ñoom am nañ stratégie ak mesures yi ba tax na dinañ mën a par le confinement par la quarantaine mën ko donc jàpp naa nañ mettre en avant ñooñu deuxièmement mooy euh, loolu dina doon ay impact yoo xam bu ñu arrivé à maîtriser ko premier scénario bi à dans le court terme Euh, vraiment du indi déséquilibre dina am nag ci set yi si wàllu économie parce que dina jafe mais dina baisse recette fiscale yi Babacar wax na ko recette douanière yi mais nag du doon ampleur bu rëy deuxième scénario bi nag mooy bu fekkee y a une propagation vraiment limitée ñu dem si ay ñetti weer ñeenti weer cas yi yokk ndax maa ngi bi may ñëw si yoon maa ngi dégg ci oto bi am na yeneen cinq cas yu ñu découvrir ah, donc mu porter les cas à 33 34 donc deux yu guérir bu ñu continuer noonu on n'aura pas d'unité sanitaire te impact yi day gën a énorme ndax confinement bi day général ñetteel bi nag mooy pro euh, vraiment propagation élargie bu demee nag ba jéggi dayoo feeg juróom-benn weer mesures yi ñu jël yépp kenn ñaanu ko yàlla cas yu yox bu boobaa asphyxie économique lay doon recettes yi dootul am emploi des pertes même bu fekkee tey Sénégal boo xoolee y a un million de travailleurs salariés Euh, kan président kan wax na ko un de travail salarié boo xam ni bu du woon aide publique au développement ak les transferts des migrants plus de 1000 milliards c'est le montant ñu leen di saluer di si profito di saluer laaj nag suñu compatriotes à l'interne ñu comprendre que ni ñoom it ils sont confinés c'est des pertes d'emploi c'est des pertes de ressources mm. donc loolu gafaga réew mi dina gën a dëgg ndax d'autant plus que yaa ngi ko doon fàttaliku amoon nañ ay problème si ay fay yenn dette intérieure yi nga xam ne asphyxie woon na lu mel mu ne arrêté nañ sax fu mu toll nii leb bi parce que dafa bëri maa ngi la doon dégg sax ngay réagir ci ci ci ci ci média yi bi ñeenteelu scénario bi nga xam ne nag wax dëgg mooy redouté nga xam ni ñaanuñu ko yàlla yàlla nañu ump mooy vraiment bu ñu perdre contrôle bi perte de contrôle nag li koy indi mooy wax dëgg les les principes de base yi nga xam ne tey premier responsable bi nag état état la muy dëkk bu mu mun ti doon mu suñu dëkk nag état mooy parce que moom moo war a assurer sécurité mais assurer aussi sécurité sanitaire population yi parce que loolu mooy seen mission jàpp naa ne bis bu ñu fa eggee ma maara day taal yi loolu mooy li ñëpp di redouter loolu moom waxuma la faillite économique mais mais vraiment démantèlement des structures économiques la parce que on n'arrive pas loolu mooy problème te foofu bëgg naa vraiment ñu ñu bu fekkee mën na dugg ci nopp président xam nga on n'arrive pas toujours hmm. à mettre le link de notre de nos structures sectorielles ensemble ma ma expliqué la hmm. tey secteur primaire mi nga xam ne agriculture la 16 pour cent moins de 16 pour cent lay participer à la création de richesse te mu ngi employé 60 pour cent des populations de la population sénégalaise nga dem si secteur bi mujj bi muy secondaire euh, tertiaire moom mu ngi def 53 pour cent ci création de ressources yi te mu ngi employé 22 pour cent soo xoolee rôle yi dafa inversé te li ko indi mooy économie bu extravertie boo xam ni on on on est des grands importateurs on prend tout de la Chine Chine. mooy produire 30 pour cent de notre produit de nos des des de des importations qui viennent yaa ngi ko doon wax tey jaaykat bi nga xam ni mooy bawol bool bi jugee dëkkam war a ñëw fii jël ay produits chinois di ko jaay waroon nañ ko mën a créer mais lu tax duñ ko mën man yàlla dafa def ma am chance dem Chine Chine c'est l'atelier du monde boo demee kër gu ne si suuf dafa am atelier mais li leen ko may mooy dañ leen a former dafa am professionnalisation tey ngaay daal yi baax na waaye wax dëgg boo ko doon teg tey hmm. mesure day am problème. day am problème mu finition day am moo tax gars di ko bëgg aussi aussi qualité bi dina baax mais aussi day am euh, en fait lu ñu naan compétitivité prix parce que chinois bi euh, li muy jaayee ak coût de production yi ak matières yi ñooy gën a yomb. moo tax ba Sénégal jàpp naa ne loolu rôlu euh, état la te loolu dana dina baax si secteur privé bi nga xam ne ñoom kan ñoo ko jiite te état moo war metre mettre ensemble et puis dafa am préférence nationale tey yow dëkkee dëkk yu mel ne Algérie Cap Vert projet boo fa mënta indi état dafa def loi boo xam ni. bu secteur privé bi mooy jël cinquante et un pour cent noo munti doon da di dooleel mettre en place des instruments yoo xam ni ressources yi fa lañ ko jëlee te am na initiative tey ma gis ko lu mel ni club des investisseurs nga xam ne tey état fa la waroon sukkandiku tey président bu mel ni Maroc euh, buur bu mel ni Maroc fu muy dem secteur privé am day ànd ak moom. d'accord te jot na nag lii firnde la xam nañ ni léegi. dëkk bu nekk nag ay la yoon bu daay gi laxee sa bopp ngay ndax tëj nañ frontières yi frontières yi tëj nañ ko léegi tax na ba léegi dëkk nag ñëpp xam nañ ni léegi patriotisme économique mooy mooy li jiitu attention mi ngi ànd ak ñooma ah <laughs> buy voyager am na ñu bëri ñu muy àndal léegi l'impact kay loolu la ñuy wax est-ce que ni muy yóbbu ñooñu ñoo ñoo am. Euh, voilà est-ce que ñooñu noo xam naa ah, Babacar muy wax waji mais dañ ne Babacar muy wax waji mais est-ce que ñooñu muy yóbbu ñoom ñooy représenter réellement le secteur mais mais mortal kooku beneen débat la mais dama bëggoon juste pour dellusiwaat euh, aujourd'hui gis nañu quand même secteur privé bi sonn na lool lii di crise bi gën na rendre compliqué affaire bi te bu ñu seetaanee entreprise bëri dana tëj yéen nguur gi naka la war a mën a taxawee pour vraiment sauver quand même toutes ces entreprises en France gis nañu par exemple Macron jël ay mesures ba alléger na lii de fiscalité bi bi euh, génn na 300 milliards d'euros teg ko ci table bi pour jéem a xool naka la ñu mën a jàppale entreprise yi euh, nee na doo fay ndox doo fay courant doo fay gaz enfin bref parce que ñoom ñu ngi en confinement pendant jours aujourd'hui yow naka nga yaakaar état bi nan la war a mën a taxawee pour mën a vraiment jàppale lii de secteur privé bi de telle sorte que li ñuy redouté di ko daw di ko mus yàlla musal ñu ci. Euh, jërëjëf Cheikh encore ma félicité intervention fi jaar bon je que loolu man c'est da di musiba bu ñëwee. Mhm. dafa am Euh, te defe naa euh, lii ñëpp da ci teg seen bët encore une fois doon nañu wax naan li ngay dundee doo ko jéggaan c'est la moine de choses par dignité pour soi-même et par respect pour soi loolu moo tax dundal sa dundal sa njaboot ak dundal sa réew loolu dafay gila donc ñun defe naa lii indi beneen beneen gis xam ne mun nañu wéeru ci mondialisation deuxième bi mooy li nga wax cest à que crise bi dama bëgg a ñëwaat ci effectivement di wax crise bi dafa am beneen aspect c'est que euh, doon naa ko cité léegi mais crise bi dafa ànd ak euh, l'angoisse xam nga c'est sociologique. Ouais, ouais. cra crash boursière bu 29. ak yi ci def yëpp. ak même la crise mm-hmm. boobu c'était le système qui était déréglé. bi li ko jiitu li koy nourrir. tiit ak ragal ndax dee gi moo tax yële moom y'avait pas de question de mort. bi moo tax affaire bi gën a grave c'est que foo ko natt rek na foofu. moo tax aujourd'hui li nga wax dama ko rafetlu c'est-à-dire que aujourd'hui on doit avoir des unités de réflexion. dama ko massa joytu du ça ne date pas d'aujourd'hui c'est que dafa am dafa am unité de veille stratégique réew boo gis ci àdduna bi léegi boo nekkee mondialisation sa obligation mooy ngay xool lu ne luy ñëw ngay xool li am tey démb ak xool luy nar a ñëw pays boo gis dafa war a am loolu on n'a jamais eu dans ce pays là ñoo xam ne seen liggéey mooy jàngat àdduna bi xool fan la jëm nga téye ko di teg sa baaraam di ko topp defe naa borom xam-xam de quelque bord que ce soit war nañu mën a am des cadres comme ça moo ñu tax lii ñu bari ñenn ñi mën ko anticiper ba pare xam déjà des débuts de solution. ci question bi mu wax je pense que eh, am na yu bari yu fi wax defe naa mënuñu ci dellu bon dama koy dama koy dama koy findeel rek léegi li ñu war a def xam nga état nañu wante dëgg c'est vrai que état kii wax na ko léegi ñoom état amul doole. li tax amul doole pour faire face aujourd'hui beneen question la bu ñu war a xoolaat. Mm-hmm. il faut dire la vérité. Mhm. c'est-à-dire que état aujourd'hui sa faiblesse vient de quoi. est-ce que mauvaise gestion de ressources la est-ce que on a une mauvaise politique est-ce que la est-ce que est-ce que est-ce que mais il faut ñu xam ne état tey am na loo xam ne moom la war moo waroon taxaw. mais loolu bu ñu jógee ci li xëy na dinañ ci war mais li am moo di c'est un constat li Union européenne def li France def Italie def ko États-Unis def ko nee na ñooñu li ñuy def réew yu mënuñu am nañ nag am nañ des ressorts yàlla mel ni am na koom-koom xam ne bii li ñu li ñu am ñun amuñu ko. loolu loolu la yàlla dogal parce que on est un pays pauvre il faut l'accepter on a un état pas pas riche on a des wax naa ko léegi donc mais am na yoo xam ne solution bi ala li tax état bi war a jóg nañu fàtte bu ñu fàtte mukk ne entreprise du bien nit ki ko jiite entreprise ki ko jiite mooy gën a néew lu ci am boo xoolee tous les travailleurs et je toujours que entreprise le premier actionnaire c'est l'état état booy créer entreprise di ko fay booy fonctionner di ko fay boo même boo fayitee da koy fay c'est le seul actionnaire permanent il faut mujj jàpp dara donc l'État c'est le premier actionnaire de toutes les entreprises donc nañu bàyyi di xool ci entrepreneur boo ko defalee day mel ni entreprise ngay defal moo tax coow lu bari daam te dans nos pays rek ngay gis ñuy ŋàññ secteur privé doo dem France gis ko fa dinañ ko ŋàññi ci yenn affaire ouvrier di am ak ñu may problème waaye statut entrepreneur ki nga xam ne moom dafa jël yow ni ngay yor di ko lekk moom mu jël ko suul ko ci suuf comme béykat di xaar mu sax kooku c'est lui il a foi en quelque am na lu mu ci bëgg te mais li li di am ñi muy loo bu amuloon musiba am donc loolu moo tax ñu ne dañu xool le statut de l'entrepreneur donc état bu dimbalee tey entreprise et économie le le le kii la parce que derrière la crise crise sanitaire se profile une crise économique. c'est vrai qui va l'amplifier et c'est plus dangereux encore nañu fexe ba dund waaye bu fekkee ne jàppuñu ci ëllëg bu ñëpp nekkee ci mbedd bi kenn liggéeyul musiba dafay am parce que réew mi amuñu doole amul kenn ko amee par dans moo tax l'avenir de ce pays là ça dépend de la survie de notre économie mën nañu yeneen pays donc moo tax ñu war ko fonk war ko xoolaat beneen bët donc moo tax ma ne euh, ñun li ñu demandé tax c'est pas compliqué da ngay xam ki nga ki nga amal affaire nga laaj lan la attan ak lan la attul li tax attanu ko nee naa la on verra plus tard mais mm. aujourd'hui en tout cas nëga ni am na yu bari nañu ko réglé le système sanitaire parce que nee nañ les gens dégg naa professionnel amul fii système sanitaire amul système dafa am loo xam ne dem cohérence d'ensemble mm. mais dafa am des soins de des points de soins de de kii loolu am fu ñuy faje la am mais un système intégré de santé dafa amul moo tax yu bëri di ñu dëkkal yooyu moom war nañu ko financer parce que j'ai dit que on dama ne toujours euh, chaque Sénégalais est actionnaire de ce pays on doit veiller à le maintenir en vie. du dëgg donc di ko faj loolu lu am important gis nga il y quelques mois débat bi fi amoon loolu daf doon daf ñu waroon a yee. bi ñuy wax naan nit ñi dañuy immi dañuy faju ji à l'extérieur dañuy def dañuy lii yëpp dañu waroon na engrais léegi li ñu woon ne na ne on a un système défaillant donc loolu dañ koy régler mais loolu am na loo xam ne bu jot bu ne bu ne continuer jot li ñu wax da ngay régler loolu après ëllëg mu mu enseigner la nga seet ñi nga war a waxal nga wax ak ñoom donc moo tax ma ne aujourd'hui peut-être c'est même pas un lieu de polémiquer parce que on perd temps ñëpp xam nañ am na lu ñu waroon a defuñu ko am na lu ñu waroon a def def nañ ko mais am na war nañ ko def loolu moom bu paree li li bu ñu la moindre chose mu la jàngal mooy nan la ñuy gérer muy le citoyen lambda comportement yi ngi citoyen yor ci mbedd mi c'est pas normal c'est criminel am na ñoo xam ne li ñuy def c'est criminel xam nañ li xew ñuy def loo xam ne dafay dañuy andi musiba ci réew mi am na ñoo xam ne de groupes yoo xam ne des groupes d'intérêt xam ne li ñuy def du yooyu état entrepreneur yëpp am na mais loolu on va régler mais ñun li ñuy demander état hmm. moo di le mandé ko ligne français mais li am ba des moo di bu ñu bëggee économie bi marché nit ñi bañ nekk dans la rue musiba bi dernier dernier scénario bi wax c' est la tendance la plus dure bi bi professeur boobu mu am il faut ñu fexe ba ne li ñu maintenir les les entreprises en activité c' est à dire que état ñu ngi ci liggéey d' ailleurs ak ministre des finances maa ngi dugal benn enquête ci kii la ñu dem a seet amatuñu résultat yi parce que dañu loo xamul nu mu toll mënoo ko natt kenn mënul natt crise bi fu mu yëpp kenn xamu ko mais il faut mu am yenn tax yoo xam ne il faut mu wàññi ko wala mu étaler ko dans le temps il faut que entreprise yi souffler pour mën a liggéey parce que liñ leen di yenn bu ñu ko attanul dañuy tëj te bu ñu ko tëjee c'est pas le chef d'entreprise c'est les travailleurs suba xale yi famille yi tas donc loolu moo tax ñu ne état li nga xam ne taxe la nañ ko jéem wàññi deuxième bi am na appui yoo xam ne yi OTA bi day soutien trésorerie day am parce que li ma la wax ne am na ñoo xam ne mënatuñu exporter mënatuñu dara loolu du ñu toog il faut ñu liggéey donc il faut que état seet avec les banques système bi que ce soit les structures yi nekk fii nan la ñuy fexe te man li ma jaaxal ci affaire bi dama ko doon laaj benn waaye léegi man ne ko dans tous les pays tu entends la banque centrale pays yëpp banque centrale la ñuy wax mais ñun suñu banque centrale elle est muette elle gère notre monnaie mais curieusement quand le pays est en crise bu musiba amee tu ne les entends pas. la Chine, 112 milliards de francs. exactement Union européenne, européenne. aux États-Unis mais les banques ñoo sauvé en ñoo sauvé les kii la banque centrale moo sauvé les banques les les économies. mais sauvé ñooy mais pourquoi. est-ce que l'État bi warul dem garantir mais est-ce que l'État ne doit pas garantir moo tax ma ne la moo tax la garantie bancaire bi ba tax entreprise ma dem ci trésorerie di am kii laa pour def le passage Sénégal ak nu muy néew ak bari war na ko mën a def. avec ses banques mais tax aussi ça renvoie une autre question hmm. de patriotisme économique c'est pas un vain mot moi j'appartiens à une organisation nous avons une organisation on est né à 85 notre leen motif bi la ñu judd c'était quoi c'était le patriotisme économique cest à que réew mënuloo ko yor te amuloo fa baat c'est pas possible on ne peut pas être dans un pays li ngeen di wax yépp c'est que les rênes de l'économie ne sont pas entre les mains du secteur bu fekkee ne yow aujourd'hui am na ñoo xam ne ils ont engrangé beaucoup ah ces dernières années depuis les années 2000 am na ñu war dañu engrangé l'argent mais c'est le moment où les gens devaient soutenir xaalis bi ñu jël yëpp bu doon dafa duggaat ci réew mi toutes les théories théories keynésiennes yi ngay kii laa loolu la ça sert à mënoo ko def ci niveau yi ñu ko def dans ce pays là mm-hmm. dugal ci xaalis bu toll nu te amul retour au niveau euh, xaalis bi distribué ci pays mais quand le marché est détenu par un étranger il vous fait vos routes vos et s'en va avec les bénéfices ah personnels c'est ça qui fait que croissance bi elle n'est pas inclusive loolu tax nit ñi lii génn meññ ci réew mi desul ñi bu desul ci réew mi nag bis bu musiba amee ñi ko waroon na nekk bu doon continuer bu doon dañu nekk ci réew mi tey hmm. on aurait dit autre chose parce que xaalis wax c'est pas de VMO c'est pas moo tax ñu ne pour doole ji nekk ci borom ji ñii ñëpp jël damay demee ci benn kii rek benn kii ci soins yi dama bëggoon ñëw ci yow pour le mot de la fin

xaalis boobu di nga ko lekk est-ce que wóor na di nga rëcc ci lii kon c'est important aussi nit xam a dégg hmm. je crois que loolu war na mën a tax également plus crise bi di gën a graw fa la ñu jëm xam nga docteur wax na ko léegi ba phase cinq bi mu wax la non maîtrise de notre économie man moo tax euh, le mot bi may wax euh, de la fin mooy gën a sensibiliser les sénégalais ñu xam ni lii du affaire caaxaan xam nga sànq maa ngi seetaan benn reportage de quoi ay deux journal bi bi ñu demee Medina parce que le maire Bamba Fall dafa ne day dafay fermer <laughs> euh, marché yi. ma dégg am na koo xam ne nee na ah lii de lu mu jar rek on est prêt à se sacrifier keneen ki naan ah lii mënuñu ko ñun ay borom kër la ñu tel tel tel ma ni mais vraiment mooy waa juy jaay ay or ak euh, bijoutier daal. ma ne ko mais quand même je crois que bu yeggee fenn fi dootoo tal jaay jaay <laughs> jaay sa quelque or ak yooyu il faut que sénégalais yi xam loolu dañu war a mais malheureusement cette conscience citoyenne aussi loolu liggéeyaat la boo xam ni ci société sénégalaise ah monsieur Derneville je crois que yooyu war nañu gën a waxaat ak sénégalais yi pour conscience boobu ñu am ko mais les solutions son la maanaam pour suñu économie daal di nekk vraiment gën a taxaw gën a dëgër les solutions sont là mm-hmm. le président Macky Sall bu génnee ci lii war na toog ak ak les acteurs du secteur privé national wax ak ñoom vraiment seen acteurs yi dégg naa ko ci Beydi Agne dégg naa ko ci Mansour Kama même pont yi nga xamee ni ñu ngi koy def passerelle yi jox ko des entreprises chinoises yoo xam ne te alors que des sénégalais pouvaient le faire même bu fekkee da sous-traité ak des sénégalais taxul ñu am si. am na koy wax ni péage yi nga xam ni peut-être même bu fekkee américains yi ñu ngi leen di dugal fële nañ ci dugal des entreprises sénégalaises maanaam dugal leen si marché bi. ba nga xam ni dañu am expérience ba suba dañ mën a dem daañu am référence yoo xam ni bu marché amaatee dañ mën a dem mais boo sous-traité ñoom du ñu am benn référence hmm. looloo waral toujours dañ naan sénégalais yi mënuñu ko liggéey mënuñu ko liggéey loolu président Macky Sall war na ci xalaat mais daal na sénégalais yi jël conscience ni c'est une chose très grave parce que du crise économique rek dafa rax loo xamee ni ëllëg mën na indi loo xam ne njaaxum la ci dëkk. jërëjëf Babacar Bruno ñu bàyyi la tam pour le mot la fin. waaw jërëjëf euh, foog naa ne émission bi am na solo lool euh, maa ngi ñaax nit ñi ñu dégluwaat ko bu baax surtout kilifa yi. Mhm. Euh, je pense que tey pour kenn ne chômage bi dina yokk mhm. ci diir bu gàtt. ndóol gi dina gën a yokk ku ko am du am amul amul luñ ciy lam-lame itam inflation bi wax nga ko inflation mooy prix yi yokku mhm. loolu nag état bi il faut mu taxaw ci il faut mu taxaw ci parce que à situation exceptionnelle organisation exceptionnelle maanaam bu mbir yu bees excès taxawaay bi ñu ciy war a am dafa war a uteeg li li nga xam ne moo doon taxawaay bi fi newoon. Hmm. am na réorientation yoo xam ne état bi war na ko am ci wàllu budget bi foog naa sànq euh, euh, euh, professeur wax na ko am na ay. ay conseil yoo xam ne wax dëgg man en tant que politique bu mu koy wax dañuy faral di wax ne ah <laughs> politiciens yi ñooy wax loolu rek mais ci boroom xam-xam lañ ko déggee conseil économique et social boobu ñuy wax nañ ko teg de côté <laughs> budget boobu ñu dugal ko ci li nga xam ne gën na amal njëriñ nit ñi au conseil de collectivités territoriales itam noonu ndax tey dañu am ay urgence yu ñu war a dox état nag euh, man bugg naa wax ci ñaari mbir benn bi mooy ci entreprise taxawaay bi ñu war a am entreprise yi tey il faut ñu xoolaat seen méthode organisationnelle parce il faut pas Euh, seen liggéey taxaw ngir rek bañ a euh, euh, jokkook nit ñi wala taxaw ci kanam ay nit xëj na war na am ay méthodes yoo xam ne war nañ ko modifier pour mun a wéyal seen liggéey benn bi ñaareel bi mooy économie d'échelle yi foog ñu xoolaat ko ndax lu bëri dina dina wàññeeku ci suñu suñu kattan. prix yi nga xam ne moom la ñu jaay itam bootul dina wàññeeku gis nañu ne yenn par exemple tarif transport aérien yi wàññee mu ngi wàññeeku fi mu ne nii ak yeneen trans tarif dina wàññeeku donte dina am yeneen tarif yu yéeg notamment li nga xam ne mu ngi jublu ci li ñuy lekk kon il faut ñu xool naka la ñuy wàññee suñu dépense yi économie d'échelle bi ci des mooy gestion de la trésorerie ma xalaat nag ne yooyu yëpp taxawaay yi entreprise yi am ci ci Sénégal il faut ñu ñu def ko ci Euh, ci ci ci euh, échange d'information maanaam mu am ay plateforme d'échange yoo xam ne ñu ci ku ci ne di wax expérience bi mu am pour que ñeneen ñi mun cee jëriñoo loolu nag liggéeyu euh, patronat bi la ak yenn secteurs yi ñu mun a organiser wu ci wàllu woowu je pense que internet mun tey am naa on a de bons informaticiens yu mun a def yu mel noonu. Mm-hmm. gouvernement bi nag tey war na dugal xaalis ci. Euh, relance économique bi wala en tout cas au moins maintien économique bi benn bi comité stratégique bi ma doon wax sànq boobu foog naa ne c'est indispensable il faut mu am ay ay borom xam-xam yu taxaw euh, budget bi ñu leen di jox ñu jëlee ko ci euh, au conseil ak yu mel noonu liggéey loo leen fexe ba nga xam ne ñu yor xalaat bi orienté ñu ci nu ñuy xeexee combat bi ndax lii guerre la il faut mu leer bi ci des mooy il faut que état taxawal mécanisme de décision rapide euh, nañu bàyyi euh, bureaucratie bi bu yàggul maa ngi doon dégg euh, kenn naan ma waaw ñu ngi sensibilisation bi ñu ngi def ay CRD waaw CRD c'est très bien mais bu ngeen yemee ci CRD yi rek te bañ di dem ci marché yu mel noonu amul solo bi ci des mooy ñun dañu bëgg a favoriser production locale bi maanaam ñuy mun a jënd localement li ñuy produir mm-hmm. kon marché yi nañu xalaat est-ce que dañ ko war a tëj wala est-ce que amul waruñu am beneen méthode de bi boo xam ne war nañ ko doxal pour que marché yi mun a continuer dox parce que marché yi bu tëjee fu ñuy lekkee fu ñuy jëndee suñu lekk donc yooyu nekk na ay xalaat yoo xam ne xalaat yu am solo la itam bi ci des pardon dama bëgg terminer parce que c'est des informations importantes dépense fiscale yi il faut état bi xool nu muy jàppale euh, entreprise yi ci nu muy nu ñuy wàññee yenn dépenses yi maanaam euh, cotisation sociale ak yooyu ñu wàññi ko pour nit ñi mun a dund tuuti bi ci des approvisionnement yi état il faut mu gérer approvisionnement yi dama xalaat ne dinañ toll foo xam ne il faut que approvisionnement yi état bi ci boppam gérer ko parce que bu dul loolu rek dinañ toll foo xam ne nit ñi duñu xamante fi ñuy war a jën te bu boobaa ça devient dangereux ak pauvreté bi yokku ak criminalité bi war a yokk jërëjëf euh, nit ñi ils risquent de d'attaquer les les les les structures. je termine avec trois points. c'est très important les circuits de distribution état bi taxaw ci bi ci des secteur primaire bi état bi aussi dimbali. les producteurs muy pêcheurs yi muy ñi nekk ci agriculture et pour ñu mun a yokk production locale bi je termine enfin euh, les industriels convention avec les industriels yi di exporter pour ñu mun di jaay localement ñu bañ continuer di jaay à l'extérieur voilà li ma doon bëgg wax ngeen jégal ma ci jërëjëf ci proposition yi Thierno euh, Bruno joxe na ay proposition yu bëri euh, dañuy tëj euh, gis nañ ne également fu mu toll nii mbir yi quand même métti parce que dama lay nga wax le le mot quand même nga tëj yow tamit mais maa ngi koy wax sànq quand même mu ñëw ci contexte bu nga xam ne Sénégal dépense mi na ba FMI attention waratu leen lépp tey Covid bi ñëw na tey mbir yu bëri daal taxaw na fu mu toll nii yow lan lan nga jàpp ne daal lañ war a mën a def def une dernière fois mu jeex benn conseil bu ndaw je sais que waxoon nga def jotoon nga développé quand même mais lan nga ci yokkaat rek pour tëj. jërëjëf vraiment pour tëj euh, may d' accord lool si li vraiment Derneville wax euh, mu mu mu mu mu mu jukki ci ay ponk yu am solo yoo xam ne nag euh, en fait jàpp naa ni mën nañ ko def waaye defin bi du doon dans le court terme loo xam ni la dañ ko war a wala def benn plan boo xam ne vraiment ce sera dans la durée mais lii jàmp te ñu war ko def euh, te vraiment euh, professeur kase mm, def ci benn jàngoot bu am solo ne actuellement c'est vrai que l'économie sénégalaise se porte bien mais la société sénégalaise se porte moins bien bu nag Covid bi dellu see nag ci loolu ce qui va cela veut dire que donc tey filets soci filets sociaux yi lañ war a gën a gën a gën a gën a wut ay solutions ba tax na dina mën a baare euh, euh, lii di lii di lii di bi ba jàpp naa ni euh, man ñaar ñetti xalaat laa ci am yoo xam ni mënul ñàkk ñu ñu teg ko ci table ji bi si njëkk mooy tey entreprise yi nga xam ni moom lay mbir mi di gën a laal dafa am ay jumtukaay am nañ ay li naan crédit de TVA crédit d'impôt yoo xam ne déjà avance nañ ko état mën na ko jëlee relance nag dans le cadre budgétaire defaat ay relance jàppale ko waat entreprise yi nga xam ne tey jii def nañ ay engagement yu am solo ci fànn woowu ci secteur bu mu munti doon ñaareel bi nag mooy jàpp naa ni tey FMI wax na ko il nous faut quand ñu def benn recadrage budgétaire daal di réallouer yenn ressources yi nga xam ni déjà engagé woon nañ ko ci seen secteurs yi nga xam ni euh, lii di coronavirus bi euh, du day wane ni ce n'est plus pertinent ñu maintenant ñu indiwaat ko ci li ñu naan recadrage budgétaire ñetteel bi nag mooy maintenant l'utilisation nag des ressources humaines dans cette lutte contre contre le coronavirus dëgg confinement bi baax na mais il faut que quand même euh, yenn structure yi nga xam ni tey jii tëj nañ ko ñu rëpp def li euh, li ñu naan télétravail utiliser maintenant euh, télétravail utiliser maintenant les ressources humaines vraiment mais ça si si lutte et propagande. et bi may mujjee nag vraiment mu am solo vraiment ñu war ko war ko jàpp te loolu yaakaar naa ni président de la république si boppam moom moom moom moom xam na ko te jàpp naa ni taxaw na ci il faut que tey ñu xam ne lii nii croisade la nekkatul sax guerre bu ndaw. garaaw croisade la parce que euh, ñun ñooy nekk pays yi nga xam ni suñu deful ndànk rek ñooy les les plus touchés parce que ñun ñoo nekk dernier dans la chaîne d'approvisionnement parce que soo xoolee pays yëpp tëj nañ seen i li ñu daan soxla ñoom ñoo ñu ko gën a soxla tey tey Chine moo daan soxla daan jaay masque ci monde bi tey dafa laaj sax France financé les France di ko jaay. Mm-hmm. donc jàpp naa ni ñun ñoo nekk ci vraiment dernier maillon de la chaine yàq naa nag opportunité la pour man tey. Euh, euh, tey crise bi opportunité la pour pays yu mel ni ñun ñu développer li ñu naan l'économie locale am na initiative yu bëri yu ñu fi def yenn zone économie spéciale am na euh, li naan naan euh, euh, pôle économique yi il faut que ñu ñu ñu nag tey profito ci lii nii xam ne nag tey économie li ko yor dëgg dëgg dëgg dëgg ndekete si say si say bànqaasu bopp la ci say secteur privé national bopp la te foofu la ñuy xaar état nga baal ma rek nag balaa may tëj ma nuyoo parce que damaa tardé bi may ñëw ay kilifa yoo xam ni li ko jiitu may nuyu président de la république ci mesures yi di ko saluer di nuyu se kilifa borom kër gi di di El Hadj Ndiaye di nuyu sama kilifa sama sama sama sëriñ sama wóllare sëñ Bass Abdou Khadre di nuyu vraiment say téléspectateurs di vraiment féddale di wax waa Sénégal aussi nañu jaajëfal suñu immigré yi euh, diaspora bi nekk ci bitim réew nga xam ne dañ fi doon dugal 1000 milliards tey ji ñoom ñëpp ngi toog seen kër mënatuñu liggéey donc war nañ dawal compréhension aussi may wax sénégalais si boppam mesures yi nga xam ne teg nañ ko na ko ñëpp respecté parce que tey wane nañu ñu ngi doon wax Sénégal zéro déchet la Sénégal zéro déchet Euh, président euh, mu ngi ko doon entamé jàpp naa ne nag opportunité tey tey ñu jéem a xam ne tey lii nii. lu koy xeex mooy set. ak respecté ak yaru te ñëkk nañ ko. jërëjëf Thierno jërëjëf docteur macha allah ci kàddu yi ngay yëkkati Mortal am na lu nga bëggoon wax sànq ne moom ngay mujjee moom laa lay bàyyi nga tëjee. non te defe naa ne euh, Derneville egg na ci man sunu problème secteur privé mooy problème réew mi. pense que bu ma delloo njukkal effectivement suñu immigré yëpp. Euh, parce que lu bari ci kër yu bari ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dund immigré yi ñoo tax te ñu ngi ci coono ñun ñu ngi ci jàqale waaye ñoom ñu ngi ci coono parce que dañu nekk bitim réew donc je pense que damay dolli sama kàddu ci kàddu professeur pour euh, euh, vraiment ndokkee leen et di leen masaw te ñaan yàlla ñu ñëwaat fekk seen njaboot ci jàmm li am ba des moo di man damay rafetlu vraiment ko ko ko kii bi am coalition bi am waaw parce que c'est une crise mondiale c'est une coalition mondiale. dafa dañu wax léegi lu am importance dañu war a xam encore dama bëgg ñu insister ci loolu cest à réew mi dañu ne woon dañuy dugg mondialisation heureusement d'ailleurs chaîne de valeur yi dugguñu ci. dugguñu ci chaîne de valeur internet mais nag le malheur c'est que dugguñu ci chaîne de valeur internationale ba pare développé ñi développé ñu économie locale ñu dañu nekk économie boo xam ne dafa bizarre. wax nañu léegi loo xam ne lii aussi non non c'est vrai ñu nekk ci chaîne de valeur ancrage ancrage chaîne de valeur mondiale bu chaîne de valeur mondiale daggee dañuy am problème waaye ñun dugg ñu foofu parce que li ñuy exporté li ñu koy bëri xanaa à l'importation la ñu ci dugg mais créer des valeurs di ko yóbbu amuñu ko te malheureusement dañuy yaakaaroon nit ki day dañuy defar économique xam nga lan moo tax c'est que junj nañu ko léegi c'est que on est réew mi ci àdduna bi xam ne li ñuy def kenn benn économie mosu ko def depuis début économie bi am ba léegi moo di ñun dañu tëb secteur secondaire jóge primaire rek dal dem ci euh, tertiaire loolu moo mënul am loolu moo tax day wane sunu système dafa baaxul il faut ñu xoolaat ko il faut agriculture développer jox industrie industrie jox les service mais ñun dañu tëb am benn benn prétention boo xam ne dans l'économie mondiale amul kenn koo xam ne kii mas na ko depuis les premiers théoriciens de l'économie mosul am donc loolu crise bi jàngat la il faut ñu jàngat loolu wane ne réew mi ñi koy mën a defar mooy les enfants du pays ak ñi nga xam ne dañ ñëw bëgg bokk ak ñoom waaye ala kulli haal nañu fexe ba lu ñuy dundee duñ ko jéggaani li nga xam ne mën nañ ko ñu jëm ko ñu jéem jéem ko soqali parce que aujourd'hui du industriel xam nga tooñ na ma léegi ni ma les industriels xam nga boo gisee Chine ma di ko répété ak Japon tool nañ jëmoon dafa xam ne bi lu ñu liggéey ñëpp dañuy reetaan ampoule yi bu ñu ko doon defar bu ñu xëyee le matin jigéen ñi dañu yor panier boo xam ne bii panier osé yooyu dañuy yoo xam ne pour ñu dafa lakk ñu dem ci entreprise yoo xam ne bii Mazda moom ñoo ko doon defar mais ñoom mosuñu nangu jënd pile américaine dañu ne lii baaxul waaye bu yàggee dana mas a baax aujourd'hui ñoom ñoo dominer l'électricité au niveau mondial hmm. loolu la c'est que opérateur dafa am lu mu ciy liggéey état am na ci liggéey am na piste yoo xam ne war nañ ko il faut état joxe loxoom parce que entreprise bu ko defee doomu réew mi la ko defal mais defalu ko te bu ñu toogee ba mu norbeelu réew mi yëpp catastrophe la troisième bi c'est le consommateur nañu ubbi suñu bët xool cest à que li ñu def ci réew mi ñu di ko xeeb ak di ko saboté di ko ñàkkal fayda loolu moo yor réew mi l'indépendance du pays foofu la nekk suñ dignité foofu la nekk il faut ñu fexe ba nu mu mënta mel ngay soññi nit ñi di leen bés pour ñu def lu gën a baax mais mënoo dumoyu parce que Chine rek c'est oh, supermarché la boo demee lu nekk nga jënd ko mais ne bés dana ñëw boo yoree xaalis dugg marché doo am loo jënd te loolu musiba la te crise bi ñu nar am ni bi jub si ni ñu ngi neen yàlla mu yem fi mais en tout cas euh, may rappeler encore di rafetlu les bu parce que vraiment euh, dama woon benn nga mee dama benn sama benn xarit saoudien dafa ne woon ñu ngi ñu ngi coow see dëkk ay secte ak ay kii yi ko namul ay ay ay comment ça s'appelle naan murid tijaan mu ne ma bu ngeen xamoon ni mu am importance mm. parce que réew moo xam mi ku ne am nga kilifa lu nit wax bu fekkee ne sa sëriñ wax ne il faut nga nopp bu dee Touba nga nekk bu sëriñ Touba waxee bu teew neexee bu laayeen ngi même chose bu dul loolu président de la République au moins bi waxee nga noppi ak moom moo dem bi réew mi ku ne am na kilifa te gis nañu role bi ñu ci taxawee moo tax suñ système bi gis naa ñu koy saboter à l'extérieur mais il faut qu'on en soit fier parce que bu ñu leen jàppalee bu ñu waxee ñu dégg te dara gënul kilifa donc vraiment kilona wane na ko am na discipline yoo xam ne mën nañ ko def ni ku ne déggal président de la république wala sa sëriñ wala kii si yit mais vraiment c'est une crise exceptionnelle dañ fiy jaar si sigi wala ñu jaar fii ne mes tey ñu ko yàlla ñun ñëpp fii la ñu fas yéene nekk développé réew mi en tout cas les opérateurs am na loo xam ne dinañ ko def teg ko ci loxo kilifa yi ne ñu lii lañ yaakaar ñu lii lañ bëgg def mais la moindre de choses c'est que état bi ñu nekkal na xam ne li muy def pour les entreprises bu ngi koy def vraiment pour l'ensemble de la nation. jërëjëf Mor Talla ñu lay gërëm di la sant directeur exécutif de la CNES fi tamit mën nañu wax secteur privé ndax am na solo ndax mbiru koom-koom tey fu mu toll nii moo jaaxal ñëpp dañ ne sax bu weesoo wàllum santé wér-gu-yaram bi nga xam ne Covid 19 def na ko gis nañ ne tamit lëmbee na wàllum koom-koom àdduna bi fu mu toll ñëpp jaaxle ne kenn xamul fan la àdduna bi jëm lu des rek moom moo di ñaan te yokk les mesures préventives docteur Thierno bu baax di la sant sant di gërëm it euh, Derneville Bruno moom tamit bu baax di gërëm Babacar Dione moom day ñëwaat sax yéen sax bi soobee yàlla ci lii moom tamit dina continuer parce que mm. xam nga Covid 19 bi kenn mënu koo bàyyi ndax actualité la foog aussi ñu nekk ci mbir mi ndax ñu ngeen ko waxee c'est une guerre te dëgg la xëy na des fois peut-être dañ ne le mot est trop fort am na yenn njiit yi du ñu nangu utiliser le mot mais mu neex mu naqari c'est une guerre on est on est vraiment on est en guerre contre le Covid 19 moo tax aussi ñun 2STV dañ ci taxaw euh, maanaam suba. ci dañ koy tàmbali ci alxamis bi nañ def benn émission moom ne ça va s'appeler Covid 19 euh, bés bu nekk lu ko dalee di h ba 19h euh, daañu ibbi suñu antenne yoo ay borom xam-xam ñu toog euh, askan bi nga xam ne bëgg na xam ay leeral ci li nga xam moo di feebar bi ñu woote lan la ci diine ji wax lan la ci kii bi science yi wax également vraiment daañu laal secteur yëpp pour que ñu ñuy seetaan gën a xam lan mooy feebar bi danger risques yi ak lan moo war a tax aussi ñu mën a respecter Euh, de sécurité et les mesures sanitaires parce que dama ko wax toujours euh, maanaam day màtte ak du màtte daal wóorul ay di def ni loxo ba pare di def yëpp wóorul salaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> eh, eh. wala bonjour bonsoir day na sëkk distance un mètre eh. c'est important ñu koy wax toujours di ko rappeler nit yi parce que yenn saa yi ma gis ay nit yi conconte mën na yëpp wóorul parce que boo sëqatee mun na ñëw fii neel salaamaaleykum bu dee jullit nga asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne la waaleykum asalaam wa rahmatullah taala wa barakatuhu bonjour bonsoir ça suffit largement conviction avec comme invité le grand serigne de Dakar ñu leen di gërëm di leen sant bu baax mbokk yi leen wax jàmm ak jàmm jërë ngeen jëf